وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أه، دوما سوري تي نيو بي باسكو دا فا ملني تيمي سانغي واجا جوت تي ديغونا مبوك يي اك خريط ييب نلان باينا كونفرنس بو غودو te euh, wax jooju dige boobu dama ko war a sàmm xanaa su fekkee ne ku dugg ci jumaa ji nuyu imaam wala bu imaam kàbbaree ku wax allahu akbar gannaaw gi sa kabar dana baax kon ñu déggee ci ne ku dugg ci dëkk bi boo nuyoo imaam nuyu nga ñëpp maa ngi nuyu imaam nuyu borom dëkk nuyu mboolem ñi njaboote waaye di beral nuyoo Seyda Roqi mi nga xam ne jigéen la joo xam ne dafa man góor ndax dañ doon te li ñuy wax léegi ci wasatiya danañ agsi léegi ci bàyyi ci ci ci ci ci gis-gisam ndaxte dafa am ñu dee jigéen moom léppam awra la ba warta feeñ warta wax warta génn warta def dara na toog ci kër gi am ñu ne déedéet jigéen war naa génn war naa dem ca marché ba war naa dem jaayi war naa def nangam nangam nangam <clears throat> ñii dañoo def dañoo ëppal ci tëj jigéen ñii dañoo ëppal ci ubbiko ko bàyyi nag moom bi mu ñëwee mu joxoñ Sayda Roqi wax ko wax juy wan wasatiya mu ne ko yow de jigéen nga joo xam ne jigéen ñi ñu wax ne nañ toog seen kër yow bokkoo ci ndax jigéen nga joo xam ne foo teew barke wàcc fa foo teew xam-xam tasaaroo fa foo teew njëriñ am fa kon jigéen jooju moom war naa génn loolu kon kooku suñ ko nuyoo nuyoo na njabootam yépp suñ ko suñ nuyoo Sayda Ndey Xadi du suñ mag di doomi bàyyi buggu xam-xam lool bugg lu baax lool nuyu nañ ñëpp waaye suñ nuroo sëriñ Aliou mi nga xam ne doomi sëriñ Mbay la nga xam ne moom moo doonoon boppi taalibe kooku yi tamit suñ ko nuyu nañ ñëpp kon damay tënk nuyoo bi foofu euh, sëriñ Aliou yow ku baax nga waaye tey danga may may sax nuyoo bi moom ma leb la ko comme euh, daal di ko daal di ko joxe fi ma ko war a joxe rek léegi jàng nañ fi benn aaya boo xam ne aaya boobu rek moom moo jàngale wasatiya xanaa dañ ci jéem a am tuuti ay dégg-dégg rek waaye luñ benn aaya boobu rek mooy conférence bi lépp luñ waxati gannaaw gi rek jéem a am ay dégg-dégg ci dégg aaya boobu la. yàlla moo wax yonent bi sallallahu moo wax euh, wàccee alquran ci yonent bi ne ko wa kazalika ja'alnaakum ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala nnaasi wa yakunu rasulu shahidan aleykum man yàlla maa wàccee alqur maa wàccee xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko muy ummatun wasat xeet wu dugg dóom digg dóomu olof digg dóomu la koy wax mu mel ni Baay dafa wax ne jàng dafa war kóotal xam-xam dafa war parce que alquran bépp équation bu mu teg bépp masala bu mu teg bépp laaj bu mu teg rek tontu baa ngi ci biir alquran dafay am nag dafay war nag yow nga jàng ko ba gis ko léegi léeg mu topp ci léegi léeg mu am feneen fu mu ko tontoo parce que alquran li ko tax a jóg mooy moo tax duut ne li nit ñi laaj rek ci saa si la koy tontu moom dafa am mission boo xam ne moo ko tax a jóg li mu bëgg a wax lay wax <coughs> moo tax léeg-léeg nga laaj ko mu dem ba ci kanam mu tontu la wala mu tontu la te doo xam ne tontu na la parce que bi yàlla waxee ne wa kazalika ja'alnaakum ummatan wasatan yàlla moo leen def ngeen ngeen di xeet wu duggi doomu xel yépp dafay laajte lan mooy digg doomu waaye ndekete yàlla firi ko ci li ci topp bi mu ne li takunu shuhada ala naasi waaye nag nim mu ko firee moo tax mu jar a jàngat xam nga wasat boobu ñun li xamoon ci baasu wasat digg doomu mooy ki nekk ci digg bi rek am ku la jiitu nga topp ci am ku am am am ku ca topp loolu mooy wasat doomi aadama sax euh, diggam ndigg lañ koy wax ndigg li mooy moo nekk ci digg bi loolu mooy firi wasat ci baat ci luga waaye nag ni yàlla waxee ne daf leen a def ngin ngeen di ummatun ummatan wasatan ngeen nekk ngeen digg doomu te diggi doomu googu li ko waral mooy ngir ngeen nekk seede ci mboolem nit ñi kon da ngay dégg ne digg doomu googu du rek digg doomu ci ci ci ci place waaye digg doomu am na ci am na leneen lu lu ca yokku ca maana parce que bu fekkee ne yow yaa war a seede ñëpp xanaa ñi nga tolloot nga war a seede waaye ñi la jiitu ak ñi nga xam ne sa gannaaw la ñuy ñëw xanaa ñooñu mënoo leen a seede kon wasat boobu am na leneen leneen luñ ci mën a déggee gannaaw loolu mooy départ bi waaye am na leneen luñ ci mën a déggee lu dul loolu mu ne waaye li takunu suwa daala naas naas yi moom ñëpp la kon ñi njëkk ak ñi nga tolloon ak ñi mujj ñëpp yaa leen di seede gannaaw gi nag yonent bi mooy nekk seede yéen ci yéen man ma daaw ma daal ci déggee rek ne yàlla dafa bëgg jàngal nañu ne nit dafa war a am kilifa dafa am war a wéeru wéeruwaay dafa war a am borom xam-xam boo xam ne moom ci lay sukkandiku pour taataan xam-xamam. bi nga xamee ne ni nit dafa war am jàngalekat dafa war am maître ñun bi ñu amee maître bi nga xam ne moo gën ci maître yi moo gën a xam ci maître yi moo yonentu yàlla Muhammad loolu moo ñu may ñu mën a seede ñoo xam ne fekkewuñu jamono maanaam li yàlla bëgg wax mooy xam-xam mooy seede. kon nit du seede xam-xam mooy seede moo tax yow bi nga amee xam-xam te xam-xam dina wax ak yow ci li passé wax ak yow ci li nga tolloot wax ak yow ci li ñëwagut kon ba nga amee xam-xam looloo tax nga mat seede dellul rek ci shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi nga xamee ci ne kon yàlla seede ji muy wax moy xam-xam bu lay may nga mun wax ci li passé mën wax ci li tew mën wax ci li ñëwagut bo démé ci firi alcorane buñ koy firi boo demee ci euh, raw riyaadu tafsir bàyyi ngi wax de te téere yi ñoo ko wax ne bu bés pencee yàlla dafay indi duma ko bëgg a guddal waaye xalam lay njëkk euh, lay njëkk a laaj ne ndax yow xalam ndax liñ la bindiloo woon muy nangam ak nangam nangam bind ko ko mu bind naa mu laaj law bu ko defee dafay laaj law ne ko yow it tamit wax ne bind na ko ndax danga nga ne bind na ko mu ne waaw bind na ko waaw yow ndax loolu ñu bindoon ñu ñu bind ci lawxu yow lawxu ndax jotal nga ko jibril mu ne jotal naa ko ko jibril seede ne jot naa ko ñu ne jibril yow yi tamit loolu yàlla bindoon jox la ko lu ci nekk est ce que jox nga ko ko moom mu ne jox naa ko ko yonent diw jox nga ko mu ne waaw ti diw jox nga ko mu ne waaw ti yëpp seede ñu laaj xeet wa xeetu ti booba ne ko ndax yéen seen yonent bi jotalool na leen ñu ne déedéet du dëgg day wax rek ñun jotalu ñu woon dara yàlla ne ku leen di seede ñu ne xeeti yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ne aha kay yonent yàlla nuux wax na dëgg waxoon na la ko yàlla wax loo woon yonent yàlla Isaa yonent yàlla nangam ñoom ñëpp wax nañ ñu ne leen yéen dem ngeen dayoo yéen yi bokku leen ak ñun jamono ñun dañoo génn dañ fee dañ fee ñëwoon gannaaw gi junney at ngeen soog a ñëw ay junne at ngeen soo a ñëw nu ngeen ñu mën a seedee ñu ne parce que yàlla dafa wàccee alquran te alquran du fen wàccee ku ci yonent bi yonent bi jàng ku ci ñun alquran wax ñu ne ñu yonent yàlla nuuxun jottali na loolu mooy seede bi kon da ngay gis ne aaya bi yëpp lim mu wax rek mooy nañ dem uti xam-xam parce que xam-xam mooy seede xam-xam mooy mooy mooy mooy mooy mooy moo lay may nga nekk koo xam ne da ngay rep ne xalifa yàlla ci kaw suuf xam-xam moo lay may nga nekk représentant représentant yàlla ci kaw suuf loolu mooy seede bi su fekkee ne loolu euh, leer na mën nañoo continuer buñ paree nag ma wax ne alwasatiyatu ba tey mën nañoo wax ne mooy point bi nekk ci diggante diisal ba mu ëpp ak oyofal ba mu ëpp moom mu nekk ci diggante bi yonent yàlla euh, sidna Omar waxoon na ko ne lii nun min xayri dofin euh, euh, siddatun min xayri unfin lii nun min xayri dofin wa siddatun min xayri unfin mu ne damay nooy nepp waaye nag du tax ma faible de du tax ma kenn yab ma de waaye nag damay damay dëgëral bu baax waaye dëgëral googu du ànd ak violence mooy rek dama koy teg ci yoon ba nga xam ne li lu nekk rek fam tegu fa la war a tegu loolu mooy mooy mën nga mën nga koo man man mën naa koo firee ne ci sama sob-soblu ne mooy al wasatiyatu li war a dëgër dana dëgër li war a nooy dana nooy waaye lépp du ànd dëgër lépp du ànd nooy loolu du mën a nekk bu fekkee ne nag dangeen ngeen ne Baye Niass ngeen wax li ma wax nii dama koy li may a wax ci Baye dama koy mën a tabax ci li ma waxoon parce que dama wax ne lépp kon xam-xam la fekkee ni ma ko démontré ni ma ko démon démontré leer na leen kon lepp rek moy wane ne maanaam yàlla lépp lu muy joxe muy maqama yi muy lepp rek ci kaw xam-xam la koy teg loolu rek moy wax ji bu fekkee ne loolu nag ñu ne waaw rolu baye ci yo bobu digg doomu bobu naka la ko baye defee da ngay daldi di dama lay daldi di wax wax bu doy war rek ne la bàyyi xutbu la waxuma waxi batine du mu dugguma ci xutbu baatin boobu mais dama lay wax xutbu xutbu mooy lan mooy mooy njollaxtoon rek mooy njollaxtoon lu nekk rek la ca kaw nga xam ne moo moo tey boo ko doon jël ci justice comme léegi wax ji bëri na ci nangam euh, tey bu ñu doon wax ci justice ñu ne ñu ne conseil constitutionnel yaakaar naa ne amul ñu nekk ci seen kaw ci li ci li ma xam wala su amee yéen ñi jàng tubaab ngeen wax ma waaw fu fekkee loolu rek la loolu ñoo ñooy ñoo ñooy xutbu yi bu doon ci yoon la yoonu tubaab ñoo ñooy xutbu yi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ñëpp bu ñëpp jaaxlee ba lépp taxaw kenn mënta dem kenn mënta wax ñoom ñooy faram-fàccee ba nit ñi mën a demaat xutbu boobu nag ci xam-xam laay wax xam-xam kese jàng xam-xam ba àgg ci ci xutbaan yi Baye Niass démontré na ci téeréem boobu ñuy wax raful malaam ne tënku ci mazhab te baax na lool parce que organisation la parce que mbir mu nekk nag dañ ko war a organiser kër ki dàq yor kër ci doomi aadama yi mooy ki dàq organiser am méthode am ay tëralin yoo xam ne moom lay tëral am na benn waay rahmatullahi alayhi sid lamin su ma sid lamin menn mi ngeen xam ku baax la benn bés ma dem biroom mu ne ma kër dafay yor méthode kaay ma wax la li xew mu naa ah, mu ne ma ba fii may wax ak yow gannaaw bu ma wanee installation yi nekk biir wal fajri ay san ay milliards yu milliards yi milliards lay jar mu wan ma ko ba pare yëpp ba pare wan ma ne ma nag kaay ma wax la benn affaire mu ne ma ah, mu ne ma est ce que xam nga ne ba léegi taxi moo yore suma kër suma dépense su kër taxi ko yore parce que ba may départ bañ dépense sonal ma bañ mu indil ma perturbé su ma njàng perturbé ma su ma buggee tukki du ma ñemee tukki su ma su ma nekkee ci daara ja di xalaat nangam lu nekk dépense sonal ma parce que dépense am na benn pa bu reeloo boo xam ne dafa euh, aayoon loolu ci fiq ci Medina bugguma tudd turam bu ma waxee ñu bëri danañ ko xam euh, mujj gi soo ko laajee benn masala mu ne eh, man man dépense yóbbu na réeral na sama masala yëpp bàyyi ma bu ma kenn laajati dara dépense réeral na sama masala mu ne ma bi may départ bañ loolu li ma njëkk def mooy jënd benn taxi taxi bi li ko tax a jóg mooy yore kër gi leen lii dafay dem ci lii aju ci oto bi chauffeur beeg ak nangam ak nangam lii réserve la boo xam ne boo oto bi yàqoo ci lañ koy defaree li ci des mooy dem ci kër gi mu ne ma système boobu ba léegi changé gul xam nga lu ci changé mooy benn oto bu màgget la woon ba mu yàgg mu nekk oto bu bees ba mu yàgg mu nekk ñaari oto ba mu yàgg mu nekk ñett mu naa nekk fukk ba fanweer waaye ba léegi rek système boobu moo yore kër gi heure bu ma neexee ma tukki mbiram dépense kenn du ci wax ak man xanaa oto bu yàqu ma ma ma xam ne nag lii bii maa ko war a changé kon nga gis ne euh, organisation dafa baax mazhab yi nag loolu rek la mooy kër yi ñi ñëpp yore rek mais ku nekk nag am nga méthode boo xam ne mooy méthode yor sa kër nit nag sañ na ni baayam yore woon këram ba màgg mu jàng ko su màggee ne man ni bàyyi nii sama baay yoree woon kër gi laa yoree kër gi wala ni sama yaay yoree woon kër gi lay yore kër gi damay joxe misaal rek su fekkee bëgg ngeen leen dégg li ma wax mazhab du duut lu jugee ci loo xam ne dañ koo forcer nit ci diine duut loo xam ne dafa jugee ci yonent bi directement duut nangam mais organisation la boo xam ne mënta ñàkk ci diine waaye nag kan moo mën a ne man su ma baay ni mu doon yore kër gi du ko yoree kër gi su ma nijaay nim mu doon yoree kër gi du ma ko yoree kër gi su ma yaay ni mu doon yoree kër gi kan moo ko man mooy koo xam ne njàngam ak xam-xamam àgg na ci moom mu mën a indi yoonu yoonu yooni boppam mais ki amut ki amut xam-xam boobu lu mu man lu mu war a def mooy tënku ci benn yoon li ma bëgg wax mooy tënku ci mësëb am na ñu mu war am na ñu mu warut ki mu warut ki mu war mooy ki nga xam ne sax xam-xam bëriwut ci diine da ngaa war a tënku ci benn borom xam-xam te borom xam-xam dañoo wax ne man kal la da xallada aaliman laqiya allaha saaliman soo tënkoo ci amoo xam-xam nga tënku ci borom xam-xam soo dajee ak yàlla yàlla daf naan la puusal na la yow kenn du la laaj dara xaaral ma laaj ki la jiite woon li mu doon wax fu mu ko teg ki nga xam ne nag warta tënku ci mazhab boobu nag moo jafe nag parce que kooku mooy ki nga xam ne mazhab bi yëpp mokkal na mësëb yëpp mokkal na ko kooku du tënku ci mësëb dafay tinkeeku léegi léeg mën na nekk ci mësëb bi waaye bu gisee leneen fële ci mësëb ba mën na ko jëfandikoo beneen mën na koo jëfandikoo parce que moom amut lu koy tënk ndax dafay jóge jëlee ci yonent bi directement ñu ne nag kooku mooy kan xutbu boobu ngeen di ju fekkee ne ci xam-xamu zahir laay wax ci xam-xam rek ñu ne xutbu boobu mooy kan baay wax na ko mu joxoñ Cheikh Omar Fouti mu ne Cheikh Omar Euh, àgg na ci daraja jooju te daraja jooju mooy lan mooy nga dem ba su téere sharia yëpp réeroon yëpp yëpp yëpp ba am amatul téere yow mun ngaa jël sa da sa sa wala sa bindukaay di bind di bind ba li sharia li téere yi waxoon yëpp nga indi at masala buñ la laaj nga wax lan la mu ne kooku mooy xutbu ci xam-xam kooku kooku amatul mazhab bu muy tënku te danaa ko démontrer légui té Baye euh, Abdou Diouf président mos ko wax El Hadj Abdoulaye ne ko euh, man li yémé sa baay moy keroog biñu ñu Senghor boolee ak mom pour ak sëriñ si yépp ñu tok mom mu nek sen porte-parole mu bolé leen ak sëriñ si pour lan ñu wax ci code de la famille bi waye xam nga code de la famille bo xam nga Senghor dafa say say te état ci boppam moo say saay waaye rawatina Senghor parce que code de la famille bo xamne France ay euh, borom xam-xam yi gëna mag ci France pendant ay at sen philosophie sen euh, euh, ñi xam yoon ñi xam nangam sen nangam sen ñëpp borom xam-xam yëpp ño and diko ko xalaat di ko segg diko ko segg di segg ba mu ñu indi ko tek yow ñu jox la ko ci togaay ne la corriger li ci l'islam li ci l'islam bañ nini mune mu ne bay mu yéemee bàyyi wax bay def na ko wax ju bëri ji du ko jar waxal point yi nga am point bu nek boko ko rek mo wax la li ci l'islam wax mune ben bay na ko lii la ci l'islam wax ñaar li la ci l'islam wax ñaar matu waxtu lépp paré lu ci l'islam waxu rek mu dindi ko ba gay gay ne bay li lan la mune bisi jang tay du bisi jang bisi tari la bisi jang ak bisi tari du ben. tay bisi si tari la mënoo fee nekk di ubbi ay téere walla ngay dem di gëstu ji dafay du sotti kooku nag àgg foofu ci xam kooku moom moomatul amatul mazhab bàyyi leen xel ci li may wax parce que kanam dafa am lu tax may leeral loolu waaye est-ce kenn ci ñun ñeme naa oote ne àgg na foofu comme ñun àgguñ foofu ñun foog ñu am mazhab bàyyi mi fa àgg sax am na mazhab waaye nag mazhab bi mooy du la tënk à cent pour cent léegi-léeg da ngay toogam yàgg nag nga xaw a mun a tekkeeku dem neneen na leer ku mën a toog ne man tënkuma ci mazhab kooku mooy koo xam ne au moins maanaam xam nga mazhabul maliki masalan bi nga nekk ba mu jeex xam nga mazhabul shafi bu boobaa nag am nga sañ-sañu ñaari mazhab yooyu yëpp diine la parce que lu ci nekk rek am na sukkandiku kaay ci diine la dégg-dégg la rek mën nga ko jëfandikoo waaye xam nga boo demee ci pharmacie bi léegi mun nga ne jaay ma garab sàngam pharmacien bi ne la amut waaye équivalent mooy nangam mais pharmacien la dafa jàng xam composant garab yi moo tax mu mën la kooku sañ na laa wax ne la garab bi bu amut man ngaa naan bale wala sax léeg-léeg mu ne la yow boobu ñu la bindal bi moo ko gën parce que xam na li la daal waaye ndax yow ci sa bopp sañ ngaa dem rek ci pharmacie ba ne garab sàngam lañ ma bindaloon waaye man du ma ko jël jaay leen ma garab sàngam doo ko def tax dama ci profité tuuti rek wax am na coow lu fii faral di am ci affaire koor weer wi feeñ naag feeñut am ñu naan non sëriñ si dañoo soppaliku yàlla ñooy orloo nit ñi sëriñ wattu orloo dit sëriñ si orloo wuñ kenn dafa fekk ne man damaa amut xam-xam ma nangu ne aw ma xam-xam ma tënku xam nga boo ko xoolee ci wàllu tubaab sax njàngam tubaab boo demee ci réewu tubaab yi nit ñi dañoo seetluwul rek dara lu léeg-léeg am ku ne ma waaw yow maanaam waa ji bu ñu ko jàppee procureur jàpp ko wala commissaire wala nangam sëriñ bi warta am waru faa dem di ñaan intervention loolu moo yàq justice yi ma ne leen non non yéen xamu leen li ngeen di wax boo demee ci réew tubaab intervention dafa am mais ñoom dañ ko organiser ba mu gën a rafet suñ bos mooy avocat boo demee sañ nga toog ci kanam procureur wala nga sañ kii mu ne waxal nga ne ko du ma wax benn baat te suma avocat ñëw parce que da bañ def erreur ci wax wala nga def erreur ci lenn loo xam ne daf lay juumloo parce que juum ci kanam justice dafa yomb mën nga wax ba dugal sa bopp waaw wala ñu laaj la laaj yoo xam ne yow ñàkk a ak ñàkk a xam li ngay wax ak ñàkk xam yoon tax nga wax loo xam da ngay foog ne dëgg la wala dëgg boo demee ci tubaab yi dañuy am médecin personnel ñi am xaalis dëgg dañuy am médecin personnel koo xam ne duñ la laal mukk ci wàllu wér-gu-yaram te duut ne moo teew xam fan ngay dem xam ci fooy dem mu ànd ak yow famille yu mag yi dañuy am euh, médecin famille ñi nga xam ne dañuy am business yu dox ci dëkk bi dañuy am ba am dañu am avocat wala ñu am conseil juridique dégg nga wala ñu am dañuy am notaire boo xam ne sa alal bu bëree lépp lu ciy dox ci sa alal ji li ngay dénkaane say wasiya say nangam lépp moom mooy seede lii baax na wala baax moo lay wax ne la bul def lii bul def lii eh, loolu loolu mooy sëriñ bi loolu mooy sëriñ ci wàllu diine maanaam ci wàllu bu amee ci ci yoon am ci médecine am ci nangam am ci nangam kon ci wàllu diine yi tamit war am koo xam ne moo jàng diine su fekkee jàng nga ba maîtriser diine amoo problème bul tënku ci kenn amoo problème kooku waxuñoo ko moom mais ki ñuy waxat mooy ki nga xam ne moom jàpp na ne limite amut xam-xam ci diine wala xam-xam dafa limité mu topp ci kaw sëriñ bi bu weer bi bu weer bi bu weer bi teroo ñu ne ko ñun xamuñ suñ jàng soriwut yow mi xam lan mooy lan lañ wax ci weeru feeñ ak fuñ koy kii ak óolu nit ak ak nangam nangam kon yow lañ bàyyee woon suñ kàddu ba léegi yow yaay wax su waxee ñu or xam nga lan moo lan moo ci lan moo ci noppale su ëllëgee su bés pencee bu yàlla di laaj sëriñ bi lay laaj na ko tax nga orloo woon nit ñi ci bés boobu mais nit ñi kenn du leen laaj soo fi duggee nag ci yeneen yoo xam ne xamoo ko naan kii kii olu naa koog óoluwuma koog te interne xamoo ndax xamoo ci dara bu ëllëgee bu la yàlla laajee yow directement ne la yow lu tax nga oroon ba sàngam wala lu tax oroo ba sàngam loolu dafa compliqué loolu rek la ñu bëgg maanaam nit ki li nga xam ne xamoo ko nga wéeru ci ci nga xam ne moom moo ko xam donc jàpp leen bu baax ne borom xam bu bu bu àgg ci yenn xam yi dafay tinkeeku du tënku ci masab jàpp leen loolu muy benn pour buñ démé ba ci kanam ngeen xam lan moo tax ma insister ci lool dana wax tamit ne alwasatiyatu munta am deug deug lumay ci ko xamné dafa jamu bayna sharia wal haqiqa il faut nga am sharia maîtriser ko xam ko xam ko ci zahir waye tamit la bay doon wax mune ne firikati alquran dafa wara jàng balaaxa jàng naxwu jàng euh, kii mboolem euh, jàng axbaar al arab jàng nangam jàng nangam waaye daf caa teg wala budda min nuurin fi qalbil mufassir wala budda min nuurin fi qalbil mufassir il faut kii jàng am kii firi alquran am leer ci xolam gis nga xam-xam mokkal ci lu bëri amul njëriñ gis nga ñi defar avion yi ñi leen jàngal defaruñu avion dëgg la wala dëgg ñi créé avion ñi créé téléphone ñi leen jàngal defaruñu avion defaruñ téléphone. te jàngaluñ leen defar téléphone dañ leen a jàngal rek bàyyi leen ci seen njàng moomu ànd ak leer leer googu moo leen yóbbu ci loolu. kon loolu mooy wane ne xam yi tamit dafa war a am te te te xam-xamu baatin ku koy weddi waxuma sax ci du ma dugg sax ci affaire ay xa yooyu ñuy wax noonu. doo dugg ma foofu man maa ngi wax ci zaahir loo xam ne ñëpp ko mën a dégg. dama toog bërki démb may gëstu ma laajte euh, benn xale ma ne ko seetal ma ci internet bi ñaata avion ñooy naaw par bés ci àddina bi mu gëstu xool ne ma cent xaw ma lan cent nangam mille avion par bés ñooy naaw ëpp na cent mille cent mille par bés aéroport Dakar bii rek suñ la waxee ñaata avion fi naaw par bés kenn xamut nu toll cent mille avions jàppal loolu du mu néew néew léeg-léeg nga gis avion bu def juróomi téeméeri nit wala lu ko ëpp loolu boo ko multiplier par par par cent mille ñaata la lay jox maanaam da nga ciy déggee benn ne vingt quatre heures sur vingt amut benn heure boo xam ne amut avion boo xam ne mu ngi ci jaww ji. seetluwu leen ne accident avion yi moo gën a néew boo ko déggee benn yoon balaa nga koy déggaat mu yàgg. dafa garaaw nag parce que bu amee benn mën naa am nit ñu bëri kii ci waaye boo ko déggee benn yoon balaa nga koy déggaat lu yàgg la ci ci yërmande yàlla la moo gën a néew waaye dama seetlu leneen mooy ne nit ñi daanaka ñu ngi dëkk ci jaww ji 24 heures sur 24 néew na nga dégg nit koo koo xam ne dañ ne la ci biir avion bi la deeyee fekk avion baa ci kaw jaww ji may wax nag damay seetlu rek di jéem a di jéem a kii su fekkee ne du dëgg yi tamit ñu xam ne du dëgg rek man damay kii waaye damay jéem seetlu rek néew na nga dégg koo xam ne nee nañ la ci avion bi la dee fekk avion baa ngi ci kaw jaww ji bëriwut lu muy am danay am nag mën naa am mais bëriwut xam nga loolu lu muy tekki avion bii nii ab ay weñ rek nga composé def nii def nii rek mu ne bërët di daw continent ba continent di yëpp nit ñu bëri ñooñu man dugg naa ci benn avion Maroc Air Maroc boo xam ne ñetti étage la dañuy teg fii ba mu fees juróomi téeméeri nit nga yéeg ay escalier defaat beneen juróomi téeméeri nit ñu yéegaat escalier defaat beneen. daanaka moom ab dëkk la doo wax ne que dëkk la muy naaw wàcc naaw wàcc naaw wàcc naaw wàcc xam nga boo xoolee yàlla ci baa ci ci ci xereñam ah jakarta yi ñoo ëpp lu ñuy accidenté dëgg la wala dëgg accident yi moo gën a bari moom parce que benn nit la wala ñaari nit oto yu ndaw yi ñoo gën a bari lu ñu accident kaar yi dëgg la nu oto gën a bëree nit rek accident am gën a néew loolu da ngay wax benn yërmande yàlla waaye boo demee ci avion yi da ngay gis ne avion xam nga lu tax avion maanaam maanaam dafay dafay dafay gaaw a génnee boppam ci mbir mi bàyyee ko yàlla parce que avion dañ ne la ñaari problème la am mooy ñaari yoon yoo xam ne nit ki ci nit ki nekk ci biir am na lu mu ciy def lu bëri mooy buy jug ak buy wàcc su xasee ba jug yàgg moom a ci yem man dugg nañ ci avion di jugee ah, fële nu mu tuddati euh, Madinatu Munawwara ànd ak sëñ bi di ñëw kii waa ji bi jant bi jant bi kiiyee man dama foogoon ne li ñu ubbi ci avion verre boobu noonu comme verre yi oto la pour ngay gis mais ma gis bi jant bi ko jant bi jamee mu jël yére muur ko def ko foofu ba nga xam ne maanaam gisatul dara kon kon du kon loolu defaluñ ko ko pour mu xool tawakkaltu alalaay boobu moom maanaam naaw naa ba ci kaw jaww ji tiim naa nit ñi fim ne nit bokkatut ba pare léegi man bàyyee naa ko machine bi nga xam ne moom moo ma daq jébbalul yàlla mu bayee affaire bi yàlla looloo tax mu néew luy am problème foo dégg problème rek doomi adama moo moo moo ci dugal loxoom problème yi yi am ci àddina bi yëpp doomi adama fi ka doomi adama gën a bëri lu muy dugal loxoom fa la problème yi gën a bëri dëgg loolu de kon loolu li muy wane mooy xam-xamu sharia xam-xamu zahir am na waaye xam-xamu baatin tamit waxuma sax baatin bële baatinu jullit ñeeg nangam waaye même tubaab bi sax bi am baat seen seen ci baatin la ñuy sukkandiku bay defar yenn yi seetlu woo doomi adama ñàkk jébbalul yàlla gi ak sob ak dem dayoo moo tax yàlla du ko mbay yenn yi médecin bi doomi adama mooy defar appareil bi nga xam ne boo ko tegee nit rek mu wax la li waa ji feebar li dal nit ki lan la nit a koy defar mais nit mënta àgg mukk ki dem rek ba jag bay bay xool nit ki xam lu muy lu mu feebar lu mu xanaa mu nekk baatin waaye ci zahir moom nit mënta mënta àgg foofu di laal nit di xam li ko dal te moom mooy defar appareil bi nga xam ne mooy mooy laal nit wax ko li li ko dal xam nga lu ko taxal appareil bee ko gën a dàq dàq jébbalul yàlla appareil bi amul bakken appareil bi du ci dugg dafay du dugal boppam ci dara bo demé avion bu demé ba ci kaw dañ nan la euh, ki ki ñu koy ti pilotage automatique moy rek doomi adama génné na ci loxom fimné manam défar nako defar na waye fimné ni mom yalla rek lay xaar mom moko ko sam ko alam yaraw ila tayri safati safatin maa yumsikuna ila rahman ya ah, <laughs> yalla mune li nga gis muy naw ci gaw jaww ji bo foogee ne am na keneen ku ko téye ku nax sa bop yalla rek ku ko pour nga am tawaasun pour nga am équilibre il faut xam-xam bi dem ba jur parce que euh, loolu la bu ko defee nag ci wàllu diine da ngay dal di gis rek zaahiru kese ak baatinu kese nim nim manta nim ñàkkee équilibre da ngay jël yonentu yàlla Moussa ak Xadir yonentu yàlla Moussa booba moom moo moom mooy njollaxtoon ci xam-xamu zahir xam-xamu sharia ci jamonoom moo ci njollaxtoon parce que mooy yonent lépp lu ñuy wax ci sharia ci moom lañ koy jógee kon moom mooy sommet bi xadir nekk koo xam ne xam-xamu baatin kese la yor du laal zahir moo tax biñ dajee xuloo bi dafa bëri lu tax nga def nangam lu tax defoo nangam moo tax euh, taalibe bàyyi su fekkee ne dañoo wax ne xam nañ yàlla wala nangam nangam wala nangam bu werante bi bëree nañ xam ne dëgg la werante bi dafa war a am parce que euh, ndagam yontu yàlla Moussa mooy werante parce que doomi adama lu mu xamut te moom mu xam ne am na xam-xam nga di ko wax lu mu xamut mu foog mu weddi ko foog mu werante ak yow soo demoon ba nga xam ne xam yàlla gii ci wax rek la rëy làmmiñ rek man koo expliquer ba nit ñi dégg ko kon buñ xamee ne kon nañ xam ne xam yàlla naxante la du dëgg déedéet buñ demee ba man koo expliquer ba nga xam ne da ngay wax rek ñuy dégg ci xel mu neex rek la aju kon kon dootul dëgg ay fen la mais su fekkee ne baatin la il faut mu am ñu ko mën a dégg ak ñu ko mënta dégg dégg de moo tax bàyyi moom ma dellu siwaat ci bàyyi mu ne ci waaw waaw ma taxaw foofu ma ne moo tax ma dellu siwaatee ci baay Baye moom dafay wax ne man dama am ñaari sëriñ benn sëriñ bi zahir la benn sëriñ bi baatin la sëriñu zahir man ci man suma sëriñu zahir mooy kan mooy alkitabu wa sunna mooy alquran mooy sunna waat naa ci yàlla ne man Baye ku ma gën a dégg alquran ak sunna gisuma ko bul bul jël ne bàyyi dafay bàkku na wala dafay nangam nangam côté boobu bàyyi du bakku mais dafa la bëgg a wax ne maanaam ba ma ba xasee ba xam ne alquran mooy suma sëriñ damaa fexe ba topp alxuraan topp ko def ci itte ba daraam du ma nga déggee ci rek ne noonu la ñuy jàngalee ne noonu la ñu war a jàngee alquran jàng alquran nag jàng ko xam ko ci la waaye xamoo ko nga topp ku ko xam te doo ko bàyyi fu mu jaar nga jaar fay tamit ci jàng ci topp alquran la mu ne sama sëriñ ci baatin mooy Cheikh na Ahmed Tidiane man Baye fexe naa ba yàlla may na ma duma ma tàggoog Cheikh Ahmed Tidiane benn seconde. te Baye bi mu génnee bi Cheikh Tidiane génnee àddina ak bi muy ñëw yaakaar naa ne ëpp na téeméer waaw mu ne Cheikh mooy suma saa sëriñ ci baatin du ma tàggoog moom benn seconde loolu tamit dafay wane ne. bala may taxaw foofu ñu julli dafay wane ne nit ki dafa war a bàyyi mi ngi wax ne nit ki dafa war a jàng xam-xamu zahir xam-xamu sharia daf cee war a xóotu du taxaw di jàng di jàng di déglu ñu jàng wala mu topp ku jàng waaye tamit bu xasee ba am sëriñ di wax waxi baatin baatin boobu tamit daf cee war a xóotu nekk ci guddeeg bëccëg du taxaw parce que amul fu mu yem ñu taxaw foofu buñ jullee ba pare continuer wala kon ñu continuer waxtaan wi maa ngi doon wax ci xam-xamu zahir baatin mais dama leen a bëgg wax na leen même xam-xamu àddina bi sax njàng mi technologie beeg yëpp ak euh, médecine ak lépp science yëpp dafa am zahir ak baatin xam-xam tànk aggut ci baatin rek du nekk xam-xam buy buy buy jëriñ du nekk xam-xam buy jëriñ xam-xamu baatin bi mooy lan mooy jamono bi nga xam ne doomi aadama lim créé création bi àgg na ci foo xam ne moom daf ci génnee loxoom jamono boobu la ëpp sécurité. looloo tax avion bi bi mu na bi mu bi muy naaw ci kaw jaww ji ba ba jël ba ba ba décollé na ba pare dafa doomi adama daf cee génnee loxoom. maanaam ki toog ci biir avion bi daf cee génne loxoom ki ci suuf daf koy jox ay yoon rek di ko tegtal naan ko jàddal fii yégal defal nii bësal ni bësal nii waaye ah, moom doomi aadama daf ce génne loxoom moo tax nga gis li muy garaaw garaaw ak li muy yëpp ci nit li muy bëri bëri di naaw ci kaw jaww ji ay mill kilomètres nangam boo boo boo boo xamoon li muy jug ay kilomètres kilomètres lay jug ci kaw 1000 kilomètres mu daw ko ci une de temps wala lu ko manqué xam nga kooku li muy daw bëri na dafa gaaw ba yow fi nga toog sax doo yëg ne mi ngi daw waaye li tax mu gën a assuré mooy ne dafay am moment ba doomi adama daf koo defar ba pare génne ci loxoom bàyyee bàyyee boppam ak yàlla moo tax lépp loo xam ne doomi adama moo koy sàmm da A à rek fa la erreur yi di gën a bëri man benn bés dama toog ba mu yàgg ma laaj sama bopp benn question ne yàlla ku bëri yërmande la waaye gis nga dawal oto mi lu ko gën a óora di amut dawal longue voyage fii ba Kaolack dana la óor ne am na benn jamono boo xam ne ak chauffeur bu mu mënti doon même benn dana am benn moment boo xam ne yow chauffeur bi xamoo foo nekkoon absenté nga xamoo benn seconde la xamoo ñaari seconde la xamoo nu mu toll waaye wóor na ne am na boo am na benn jamono boo xam ne xamoo foo nekk ci ci àddina waaw benn moment boobu benn seconde boobu nga ñàkk xam fi nga nekk lan moo téye woon oto bi te oto baa doon daw saa nangam te nga di ko def ay at di dem ak ñëw kon même yow mii dawal oto bi sax da jàpp ne yaay dawal oto bi mais bu ci yàlla bokkul du soti parce que borom xam-xam yi psychologie wax nañ ne borom xam-xamu euh, kii wax nañ ne doomi aadama mënul concentrer lu ëpp quinze minutes moo tax. jàngalekat yi ñoom maas mi di wax ne sooy jàngal nit ñi léegi sooy jàngal xale yi boo demee tuuti taxawal xaw may may leen tuuti wala nga may leen tuuti ñu nokki reeloo leen wala nangam nangam wala nga def dara loo xam ne dafay num tërati parce que benn concentration boobu noonu nit munu koo def léegi nag yow bu fekkee ne chaque 15 minutes sa war sa concentration bi dana xaw a taxaw démarré at bu doon machine la day dox di di démarré mun na am na taxawaay bi du yàgg léegi soo buggee boo buggee concentré wu 4 heures de temps yaa ngi daw 100 moo tax tubaab yi sax dañuy wax ne dawal baax na ci boo dawee daw daw lu mat 200 kilomètres wala 100 kilomètres war ngaa taxaw fenn dégg nga wàcc oto bi dox tuuti naan ndox ñëwaat même boo gëmantuwul ñun nag ñun duñ ko def. gis naa ne sëfoor yi Mali yi dañ koy def parce que oto bi ñaari sëfoor ci nekk buñ dawalee ba mu yàgg kenn ki wàcc jox keneen ki boo demee ci naar yi dëkki naar yi yëpp surtout Maroc ak surtout Maroc. long voyage kenn du ko def rek par rek dem boo dawee ba ci kanam am na fooy wàcc ñi bëgg julli julli ñi bëgg a tuur ndox tuur ndox ñi bëgg a def nii même sport sax ñoo xam ne bëgg nañoo def seen benn sport bu ndaw noonu am nañ sa skip 15 minutes pour pour def li ñuy def ñëwaat moo tax ñooñu ñooñu ëpp jàmm ci côté boobu su fekkee ne nag xam-xamu zahir bii rek xam nga wax deug yalla defar xam-xamu avion bi batin la de ñiko defar sax yalla ko jaarale ci ñom defar ko rek mais mënuñ ko expliquer téléphone bi ak rajo bi nga tok légui di deglu ki wax fële ci Amérique radio nga tok fi ki wax ci Kaolack nga diko deg ki wax ci ki wax nga fi ngay waxee ni ka ci Amérique moy rajo bi moy li ngay li caméra yi nga tok rek ña nek Amérique nga koy deg nek Canada ña nek France ña nek ñu koy deg légui en même temps wallaay ñi ko defar mënuñ koo expliquer dafa jaar ci seen loxo ñu defar ko rek mais loolu baatin la su fekkee ne nag xam-xamu zahir bi ci boppam moo tax yàlla wax ci alquran ne yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia waxut yaalamuuna xayaati dunia de zahiran la wax comme neena dañoo xam lenn ci lu feeñ ci xam-xamu adina kon yàlla moo saxal ne xam-xamu adina am na ci loo xam du feeñ dafa nëbb zahiran min alxayaati dunya la waaw waxut ne dañoo xam addina de dafa wax ne dañoo xam ci lenn loo xam ne ci ci ci xam-xam addina dafa feeñ yéen ñi jàng arab nag bu ñu waxee nakira zahiran xam nga ne kon du du lépp am na am na am na am na kii la de kon loolu mooy wasatiyatu même xam-xamu médecine bi il faut mu dem ba dugg ci baatin nga dem ba xam-xam bi wax naa la ko léegi euh, professeurs yi nekk ci ci ci hôpital yu mag yi ak euh, médecin yi nekk ci hôpital yi ñemee jël biiru nit xotti ko moo tax bàyyi mi ngi wax ne doomi aadama dafa ñàkk fayda te yëgu ko parce que nangul na benn doomi aadama ni moromam xam-xamam ba àgg ci mu ne ko li la dal foog ma xotti sa biir bi dagg sa butit yi ñawaat ko mu ne ko ahankay parce que sa sa xam-xam moo may xamal ne yow war nga koo mun mu nelawal la di xotti sa biir bi di dagg nga nangu ko ndax xam-xamam sa moromi doomi aadama nga nangul ko loolu ci xam-xamu zahir boo ñëwee ci xam-xamu euh, kii nag xam-xamu diine ne noo kenn war ta topp kenn wala sëriñ bi lu tax muy jiite ni ñeeg lu tax muy léeg lu tax muy lii xanaa yow loolu mënut a nekk ubbi sa bopp bi médecin dafay jël bopp bi xotti ko ubbi ko tiim sa yuur gi tiim sa nangam di ci def lu ko neex te yaay signé ne d'accord naa ci te tegoo ko fen lu may ne moom dafa am xam-xam moo tax nga nangul ko te loolu xam-xamu zahir la xam-xamu addina la ki xam am xam-xamu diine nag nga ne moom warut a wax kenn warut a jiite kenn kenn warut a topp kenn waruñoo laaj ken ku nekk danga war a dem ak sa bopp xanaa kon yow da nga jàpp ne lépp am fulla ba des diine dafa war kilifa waaw moo tax bàyyi doon na ko wax sax ne diine duñ ko donn dañ koy jàng mu ne pour nga xam ne dañ koy jàng duñ ko donnu mooy sa papa euh, papaay jàmbur na nekk chirurgien dàq fee opéré mu dee bàyyi fi doomam tax baayam nekkoon médecin chirurgien tax nga dem jël sa baay yóbbu ko pour mu opéré ko ñàkk nga baay kon jàng la kon wasatiyatu mooy mbasatiyatu daal li ma ko bëgg waxee mooy ci bàyyi ci dégg-dégg baay mooy xóotu ci xam-xam rek ba dara tënkatu la xóotu ci xam-xam ba dara tënkatu la loolu mooy wasatiyatu parce que du lépp moo war a nooy am na lu war a dëgër parce que bàyyaa ngi wax ne man maay man Baye Niass maay góor goo xam ne maa gën a compliqué ci ci nit ñi parce que léeg-léeg maa gën a nooy képp kuy nooy damay nooy di nooy ba nga foog ne damaa ñàkk fayda waaye boo ma jàllar bee góor gu ma gën a naqadi deret mag moo gën a naqadi deret am doo ko gis ci mu ne loolu waaye loolu lan la wax na ko sax mu ne ni wa inni rahmanitullahi liman yuhibbu wa naarun li taridil mujaadili man am na ñoo xam ne man may maay jëmmi yërmande yàlla ji ci ñoom maa jëmmal yërmande yàlla ji ci ñoom buñ accès ci man rek gëm ne yàlla ku am yërmande la danañ ko gëm ma démonstré leen ko waaye am na ñoo xam ne safara laa ci ñoom mu ne kooku mooy kan mooy ku bugg yàlla wala ku yàlla bugg nga tegu ci yoon est-ce que man tey danaa fi nettali loo xam ne man man dama koy nettali ci kaw sant yàlla Cheikh Niass sa Cheikh Cheikh mu Serigne Mbaye man maa fekkee lii kenn nettaliwu ma ko mi ngi ñëw nekk étudiant ñu dalal ko ci étage bi ñu teg reer bàyyi ne ana cheikh ñu ne ko ñu ne ko ñu dem ooyi ko mu yéex a ñëw bàyyi ne bàyyi di ko maanaam bàyyi di ko xaar ne duñ reer bi te cheikh ñëw si dafa mujj mer parce que jaabante na ay yoon di oo Cheikh Cheikh na ko maa ngi ñëw xam nga seex ci lu nekk booba karaw yu bëri moo xew boobu yéyee yéyee moo xew da nga am karaw gu bëri ba pare karaw gi euh, doo ko mën a num koom ngay jël soo koomee koom koom ba mu nooy nga di ko bés ndànk ndànk jël dictionnaire di ko ci teg di defar ba mu baax soo defaree baaxut nga tasaat ko defaraat Cheikh ci loolu la nekk de bàyyi toog di ko xaar xam nga lu tax parce que Cheikh dafa nangoo jàng étudiant la te noonu la bàyyi meloon ci ñiy jàng pour pourtant am na koo xam ne li bàyyi di baax baax ak li muy am yërmande bu ne kaccit buntu bi bàyyi ne kooku kan la mu ne ca xaj acca waaw ca xaj xam nga loolu ñaari extrême la dégg nga de noonu la amee yërmande waaye noonu la xiise mu ne man bàyyi xale bu nangoo jàng lum def rek mën na ko koo baal lum garaaw garaaw garaaw mën na ko koo baal ñaanal ko mais xale bu nanguwut jàng maag moom xeex rek lay def ku bàyyi di xeexat foo jëm xeexu bàyyi kan moo ko attan waaye nag ñàkk jàng li muy garaaw garaaw man euh, sëriñ bu njëkk ba dama ne woon ba may xale bu ndaw di xalaat xalaati xale dama fogoon ne ñàkk jàng problème mu dama daan dégg mag ñu ne naan jàng yàggut ñàkk jàng yàgg doo xam lan la xam nga lu tax ñàkk jàng yàgg ñàkk jàng yàgg gàcce gu lay topp rek la ba nga dee mu topp say doom moo tax mu gën a yàgg mais man dama foogoon ne ñàkk jàng problème yi ki jàngut rek la waaye ndekete ñàkk jàng du problème yi sax ki jàngut parce que ki jàngut dof la dof ki feebar dof du xam ne dof la de xam nga ki ñàkk jàng kan la kan mooy problème maanaam tey nekkal doomi Baye Niass nekkal doomi Serigne Aliou doo nekkal doomi Serigne Mbaye ma Medina ja wala ci misaal tey wala nga bokk tubaa wala nga bokk jàngoo te foo dem ñu tàllal la micro foo waxee rek wax gàcce gàcce gi gàccaay lay doon communauté bi yëpp lay doon dama ci jox benn misaal ma ne pour nga xam ne jàng ñëpp ko war a def moo tax suñu ootee école ne yi ñu tabax école ñëpp war a ñëw suñ ne kaay leen ñu dimbale euh, doomi jàmbur yu ñu jàng ñëpp a war a ñëw xam nga lu tax léegi nii buñ paree rek bu ñuy ñibbi ku nekk oto lay jël tegul ci kaw tali bi amal sa oto bu seer amal sa chauffeur boo xam ne chauffeur bu professionnel la ku respecté code de la la amal këyit yi oto bi am yëpp tegu ci kaw tali bi te ñi nga jàkkaarloo ñëpp amuñ oto yu baax respecté wuñ code de la ndax dana la tax a mucc kon jàng mooy jàng communauté bi yëpp war a jàng heure bu nit ñàkkee jàng rek mu ngi mel ni ko de la route heure boo dajee ku mënut oto wala ku respecté wut ko de la route billaay yow mi respecté code de yow rek yaay tiit xamoo ne ñi nekk ci oto bi responsable rek ñooy tiit ñeneen ñi duñ tiit ñoom dañuy foog ne li li ñuy def rek euh, lu nekk rek sañ nañ ko def moo tax li ma bëgg a wax mooy bàyyi ci ci tënk ci gàttal xam-xam la wax ne mooy tinki nit su la xam-xam xasee ba tinki su fekkee ne nag da ngaa limité ci xam-xam foog nga tënku soo tënkoo ci benn mazhab mazhab boobu mën naa am mu indi la problème parce que bàyyi ngi wax ci ci ci raful malaam ne mazhab yi li muy baax baax li muy liggéeyal l'islam li koy organiser yëpp terewut indi na indil na l'islam ay problème yu bëree bëri problème yooyu mooy lan problème mu parparloo problème mu maanaam euh, parparloo problème mu taasub man fii laa bokk li ma def man léeg-léeg ma gis benn xale boo xam ne ci Medina ah damay gis mag muy jaamu yàlla def benn affaire muy ree boo ko lii looy ree mu ne ah di de Medina duñ koy defee nii waaw Medina duñ koy defee nii moo tax ngay ree nga mooy ree mag mi parce que yow da ngaa jeex parce que da ngaa jàngut moo tax parce que kii li muy def mën naa am bokku ak li ma dina def waaye terewul mu doo diine parce que diine dafa yaatu diine dafa yaatu

muy wax lan mooy différence professionnel ak ku doonul professionnel mu ne professionnel nit rek la cër yi nit ñi yor la yor fi nit ñi mën a def ci effort loolu la mën a def waaye problème am mooy lan dañ koo tàggat ba nga xam ne dafay gis lu nit ñi gisagut bu ko gisee yi tamit ni mu koy exécuté boo gën a gaaw ni ko ñeneen ñi di exécuté loolu rek la mais loolu préparation la bu ma bëggoon a xuus sax bañ gars yi kii nii ñu gars yi tumaal ma danaa la wax ne la léeg-léeg nga dégg ci ci ci footballeur yi ñuy wax passe aveugle passe aveugle mooy lan maanaam maanaam passe nit te doo ko xool paasu gumba loolu mooy lan paasu gumba ma boo ci manee àgg mooy dem nga ba nga xam ne mun ngaa gëmb di def li ngay def loolu baatin la ku gëmmu moom gisatoo ku gëmm gisatoo de waaye da ngay gëmm di def li ngay def xam-xam laa la bëgg wax ne tànk àggut foofu du xam-xam ndagam xam-xamu zahir nag mooy àgg ci baatin foofu nga mën a gëmm di def li ngay def kon xam-xamu zahir bi xam-xamu diine ta ñag ag foofu yonent yàlla musa bi mi werante xadir waaw lu tax nga def li lutax nga ray ki muy lay nan ko waaw li tax ma def ko bay mu ne lim tontu yeb dara doyu ma ci waye lama doy ci wax ji moy wa ma faaltuhu an amri man defu ma woon de yàlla ma don defé yàlla ma don utiliser di def man defu moom mu ne wax jooju rek mo wér yàlla da fay defé nit bu fekkee ne ci xam-xamu zahir bii ci la yàlla di defee nit dem ba mu àgg ci di gëmmu di def li muy def ah? kon gum xanaa xamoo ne Sénégal gii lañuy la gumba di ñàkk jàngee waaye boo demee Égypte gumba yi ñoo daq jàng bépp benn gumba bu yelwaan doo ko gis Égypte maanaam gumba bokkul ci yiñ jàpp ne war naa tax nit ki néew doole ba yelwaan déedéet gumba dafay jàng borom doctorat yi Égypte yëpp ay gumba lañ kon du bëddi du bët de ah kon loolu mooy wax ci kon xam-xam mooy mooy loolu bu fekkee ne na xam-xamu zahir bi laa la wax ne dafay àgg foofu kon xam-xamu diine mënta ñàkk àgg foofu foog mu am loo xam ne ci kaw lay yem nga di ko appliqué waaye soo koy appliqué dafay dem nag ba mu jur ci leneen loo xam ne bàyyaa ngi wax ne mu ne yonent euh, Sidna Omar am na jamono boo xam ne suy wax da ngay ka doom ci ay distance maanaam buy wax fële ca marché ba bi mu koy wax boobu ku xam Madina bàyyi ngi toog ci tribune bi mu ne su Omar di wax ca marché ba nga di ko dégg fii diggante marché ak ak diggante marché Madina bi ak Madina ak ak tribune bi mat na ay ay mètres yu bëri de ah, mu ne foofu noonu xam nga distance bu gudd la mi ngi mel ni tey jii nga ne bu waa ji buy wax fii nga di ko dégg ci taliba mu ne suy dox da ngay dégg tànkam yi boo bu jegee nii da ngay dégg ne borom doole mooy dox képp ku góorgóorlu ba mu pes la nag moom moom dana am jamono boo xam ne li ngay dégg xamoo fu mu jógee parce que weddikat yi dañoo bëri dafa am benn waay boo xam ne pour ma soulager nit ñi tuuti te pourtant nag lu am lépp bu am xam la lu lu la waa ji dafay dafay sëriñ di jàngale jàngale jàngale jàngale jàngale su majlis bi paree daf naan balaa ñu tëj majlis bi may naa leen benn waxtu boo xam ne lu waay laaj rek question bu mu mënti laaj rek ak lu mu mënti doon ñu discuter ci rek am ku ne waaye kii dafay jaay xam-xam kii dafay oote du nekk moo ko xam kii nangam nangam xam nga nit ñi rek nañ mel rek benn xale bu sob dégg ko ne ah bàyyi leen ma man bu ëllëgee bu fi ootee ne lu kulisu Alioune jawaab man danaa ko laaj laaj boo xam ne du ko xam ci lay doxe doxee yi wax ji muy wax parce que li muy wax dafa garaaw ah fekk majlis bi am na benn dof boo xam ne dof bi toll na ni kii bii nii ci rëy ak gudd waaye dof bi su ñëwee rek day dem toog fële ci ruq ba gaa yi ne nañ génnee dof bi sëriñ bi ne leen dof bi moom comme dóorut kenn defut kenn moom xeeñut defut dara euh, amul benn problème bay leen ko yàlla bindul dara ngir foo bay leen bàyyi dof bi te li ko fi indi xamu leen ah ñu bàyyi dof bi dof bi day toog na le yàlla nattu xale bi nag keroog bi mu naree ñàkkee teggin sëriñ bi ne daf koy laaj lu mu dudwaax keroog bi muy wax dof bi dafa ñëw taxaw nii moom bi mu jógee di di wax ci kanam ci kanam dof bi la taxaw kenn doxul diggante mag dof bi bi sëriñ bi di laaj rek mu ne sëriñ man dama am lu may laaj

waaw wala dof-dof loo koy réglé bopp ah dëgg la bu ko defee loolu mooy loolu mooy xam-xam dafa war a xóot ba àgg ci xóotaay bu bu dul loolu mooy indi werante yu bari yi loo xam foog ne ku ko xamut nangam looy wax foog ne ku ko waxee wut noonu du du jullit te danaa la ko démontrer léegi te du yàgg waaye bu ma bàyyee loolu dama lay wax ne wasatiya dafay am ci mën xëj maanaam nit ku diggu doomu du tëb tëb rek diggu doomu waaye soo buggee nit ki digg doomu équilibré ci euh, ci ci jëflanteem ak ci dundam ak nit ñi programme bi nga koy tëral pour préparer ko programme bi dafa war a équilibré wala déggulee li ma wax booy dugal nit école pour mu génn nekk borom xam-xam programme école bi programme bi nga xam ne moo koy préparé primaire ba ba muy am bac ba ba muy am nangam programme boobu ci boppam dañ ko war a toggee noo xam ne programme bi ci boppam moo équilibré moo tax su programme bi préparé soo paree da nga équilibré yow. moo tax ñun suñ maam yi fii ci Sénégal këri diine yëpp yu ci ëpp sëriñ si dañoo tànnoon mazhabu Malik ngiram Malik boo jàngee tuuti ci mazhab yi da nga xam ne ngiram Malik bu digg doomu la ci diggante mazhab yi parce que Hanafi mazhab bu Hanafi mazhab bu diis la diis la loolu sax moom du dafa dafa am rigueur bu ëpp même Hanbal Hanbali égyptiens yi sax boo buñ lay wax ne la yow da ngaa ëppal da ngaa da ngaa diisal ba ëpp dañ naan la Hanbali awi ah waaw yow hanbali nga mooy yow danga ngaa da ngaa da rigueur ba ëpp Shafi'i dafa dem ba mujj gi moom moom ngiram bi dafa dafa moom moo gën a nooy ci ngir dem na sax bane sooy jàpp yow ah ba agsi fekk yaa ngi peñe sa karaw gi bañ mu yàqu am nga droit laal sa sa bakk baaraam bi ci ci ndox mi ne ko nii daal di continuer yu bëri daf ko yombal yombal googu taxu terewul mu nekk diine de waaye nag diggante yombal googu ak euh, euh, bële ne euh, rigueur bu ëpp bële ñoom dañoo tànn nekk ci diggante bi muy njiram malik moom moo gën a équilibré ci ngir yi bëri na yu yum yum num tuddati yoo xam ne dafa dafa ki dégg de loolu benn benn la mooy programme bi bu loolu paree bu ñu demee ci mazhabu ci ci firaq firaq islamiyee mooy mazhabu fikriye ci wàllu pensée islamique tamit bañ ciy tànn bañ ciy dugg dañoo tànn benn école boo xam ne moo gën a équilibré moo nekk ci digg bi ci diggante ñaari kii yooyu noonu. parce que boo demee ci firaq yooyu am na lu ñuy wax zahiriya nga xam ne ñoom dañu ne texte bi li mu wax rek noonu la amut interprétation amut dara noonu la. su ne su ne la dañ lay rey dañ lay rey amut nu mu tuddati jarul jarul interprété jarul dara jarul dégg-dégg noonu la rek loolu tamit léeg-léeg dafa indi problème parce que alquran ngi wax ay nit ne leen euh, faqtulu anfusakum ñoom zahir yi lañ doon ñoom ñoom seen seen diine boobu seen euh, sharia sharia boobu zahir la woon moo tax bu yàlla ne aqtulu anfusakum ku nekk dangay jël jaase rey sa bopp wala nga jox sa mbokk mu rey la mais ñun bu suñ diine bu yàlla ne rayal sa bopp dañ naan déedéet mooy nga tuub mooy nga rey sa bakkan bi mooy nga gar mooy nga fo nga forcer sa bakkan bi toroxal ko diggante zahiriye boobu ak euh, ak euh, ñooñu ñuy wax murji'a nga xam ne ñoom dañ ne lépp lu xew rek yàlla la maanaam boo rayee ni sax yàlla yàlla yàlla la ko rey loo mu jeex lu am rek yàlla la amut interprétation nit mënta def dara ki nga rey yàllaa ko rey ki nga dóor yàllaa ko dóor ñoom noonu lañ gisee affaire loolu tamit xam nga dafay xaw a dafay xaw a compliqué ñu ne déedéet euh, boo demee ci mu'tazila ñoom dañoo jël xel nangu ko dugal ko ci ba nga xam ne xel mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy nattukaay bi ñuy nattee lu nekk waaye yàlla nag boo ko buggee natt ci xel wala diine yëpp bëgg a tegu ci xel tamit dafa indi problème da dugal xel foo xam ne xel mënu fa dem xel su fi yi dañu wax ne mi ngi mel ni euh, waruwaay bi ngay war mën na laa yóbbu pale waaye dugg ak yow pale mën na laa yóbbu ba ci buntu pale bi nag defal la yoon bu gaaw nga aw gaaw àgg pale léegi mais bu ngeen àggee dana gaare yow yaay dugg mais moom du dugg néeg bi bokk mën na laa yóbbu ci buntu néeg wala buntu kër gi waaye bu de néeg bi moom du fa dugg bu dee kër gu amul buntu bu ngand lay du dugg bu ko defee nag ñoom ñu jël al ashariya mooy kii bi euh, école pensée bi nga xam ne ci diggante école pensée yooyu ci euh, ci wàllu wàllu wàllu pensée islamique ñoom ñoo ci gën a équilibré parce que ñoom dañu nangu ne am na loo xam ne ni ko yàlla waxee noonu la parce que ci yàlla aju kenn munu koo xam maanaam yàlla tey su ne xam nga soone zahiriya ne ni ko yàlla waxee rek noonu la yàlla ne man dama am loxo xam nga problème ñëw na kon yàlla dafa am loxo bu mel ni suñ loxo yi loolu dafa indi problème waa achara yi ñu ne déedéet bu yàlla ne am naa loxo dangay nangu ne am na loxo waaye da ngay nangu ne loxo yàlla bi niroowut ak loxo nit xamoo ko ka nga ne rek yàllaa ko wax am na waaye naka la mel xamoo ko kon xam nga kooku moo gën a équilibré ki ne ni ko yàlla waxee rek noonu la loolu loolu mooy mooy mooy mooy équilibré ci mën xëj yaa ngi dégg ma génn foofu ne la bàyyi ma ñëwaat ci baay léegi parce que bu ma génnee rek ci benn kii foog ma ñëw pour démontrer la loolu noonu bàyyi bi nga xamee ne nii dafa libre ci xam-xam dara tënku ko ba pare dafa digg ci xam-xam bu ma la bëggee noppal sax demal léegi ma a la jëlal tiituru ci wàllu wàllu bind wàllu xam-xam wàllu culture su ciy wax daf ci wane am na sax man lu may tuddee wasatiye saqaafiya bu fekkee ne loolu mën na nekk waaw mooy même ci wàllu saqaafa ni muy bindee ak ni muy ni muy xalaatee lépp dafay équilibre ba turi téeréem yi sax daf ciy dugal équilibre boobu parce que bàyyi dafa ñëw fekk réew mi nit ñi di julli di yor seen loxo yi kilifa yëpp di ko def waxuma sax kilifa yi ci Sénégal waaye Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xam ne mooy sëriñi Baye moom la topp ci léppam baayam mi maamalaaji nga xam ne moo ko jàngal léppam amut ku mu teg fu fu mu teg fu mu teg ki mu teg maamalaaji xam nga tinkee koo ngi noonu baayam ji ko jàngal nga xam ne moo la jàngal diine moo la ci initié moo la jàngal ba nga àgg fi nga àgg muy kàngam bi nga xam ne ni ko nawee ci xam-xam nawee woo ko kenn kooku dafay yor loxoom yow ngay aj sa loxo nga respecté ko que seetlu nga li may wax. bu doon keneen la moom nga gis ne maanaam dafa foog ne baayam dafa dafa àgg ci lu baayam xamut kon dafay xeeb baayam wala baayam ne ko yow danga maa lu tax man ma yor sama loxo yow ngay aj sa loxo te may sa may sa may sa maître loolu xam-xam la baayam am na lu tax mu def ko am na layam. bu ko teg moom am na layam bu ko teg te ci wàllu xam-xam sax foofu xam-xam mooy mooy tënk moo koy tinki mais du nite lay tënk moo lay tinki moo tax bàyyi bi mu demee sax ba jël di xabdu mu indi coow ñuy coow coow coow coow coow mu ciy bind téere xoolal turi téere bi te pourtant boobu dañ ko attaqué ne ko li nga def bokkut ci diine ji dang ko sos baaxut ngiram Malick mi nga nekk amut li ngay li ngay wax ni amu ci muy bind téere di tontu yéen ñi yéen bindkat yi yéen jàngkat yi ak ñi xam journalisme ak nangam nangam bu fekkoon ne dañ laa tuumaal ngay tontu mën na am titre bi dafay wane ne da ngay xuloo wala da ngay delloo xuloo mais xam nga bàyyi lu mu tuddee téere bi tafsiratul euh, euh, nu mu tuddati rafuul malaam am man qabada wa rafaa iqtidaan bi sayyidil anam li ma tax a jóg li may démontrer ci téere bi du xuloo de limay may démontrer ci téere bi mooy fexe ba jox argument képp kuy yëkkati sa loxo di ko aj ma jox la argument yoo xam ne da nga ci xamee ne ku la yedd dafa jugum fexe ba duñ la mën a yedd parce que li ngay def da nga koy mën a argumenté seetal loolu seetal wax ji ni mu te da ngay xuloo dañ laa attaqué de leen li nga def mënoo ko argumenté ci diine waxul len xamul len dara waxul len ne nangam nangam waye dafa ne dana fexe dal ba ku koy def ma jox la argument yo xamne bu ëllëgé sax da nga am conscience bu tranquille ne yow li ngay def sosoo ko te ken mënu la yedd ci dëgg fetal loolu tabsitul anami fi anna al ilm a raful malami am man qabada wa rafa iqdaam sayyidil anam dégg nga de bim deme bané dafa gis doomi sëriñ si nit ñi bàyyi jàng surtout ndaw yi surtout nag doomi sëriñ si bàyyi jàng te bàyyi nag daf daan wax benn wax mu ne lu baax ci ku nekk la baax waaye ci doomi nit ku baax la gën a baax mu ne lu bon ci ku nekk la bon waaye ci doomi nit ku bon la gën ci nit doomi nit ku baax la gën a bon kon ñëpp war a jàng waaye nag ku sa bàyyi nekkoon borom xam-xam dëgg-dëgg nag ñëpp war a jàng waaye yow it war ngaa jàng parce que xam nga bu sa bàyyi jàngut boo bu sa bàyyi nekkee borom xam-xam te jàngoo xam nga danger bi mooy lan la daloon waa ji moo lay dal waa ji euh, dafa nekk ci jumaa ji dëkk bi moo fi gën a ñàkk dëkk boobu moo ñàkk amul dara ba pare bari njaboot kenn dimbalewu ko kenn faalewu ko ah, mu dem ci jumaa ja rek ma ngay bale jumaa ja ma ngay lal ma ngay lal ma ngay euh, noddu ma ngay toppatoo jumaa ji ba barke jumaa ji uy si ko nit ñi ku xëy rek yore sa euh, euh, dara looy addiye wala dara wala sarax ne xaaral ma yóbbu ko jumaa ji bu ñu demee ñu ne joxal bilaal bi joxal noddukat bi mujj gi yëf soppeeku soppeeku ba dëkk bi yëpp toog ne ñun seetlu nañ ne waa ji bañ ko commencé jox ak léegi nawet bi dafa baax suñ bu yëf dafa dox léegi ni ñuy def mooy dëkk bi yëpp bu nawet bi jublu see ku nekk na génne dara ci sa alal ñu dajale ko yóbbul ko ko bu ko defee mu ñaanal ñu ci nawet bii di ñëw ñu di ko def nawet yi di dox ñu di ko def nawet yi dox benn bés waa ji génn àddina taawam nekk fa nit ku waya di baaxut Ousmane Ndiaye sëriñ dara rahmatullahi moo moo ñu daan wax ne sëriñ mu naa mu ne moytu leen wayadi dof complètement moo gën wayadi ñu ne ko ah mu ne waaw mu ne parce que gis ngeen médecin buy faj dof ñu ne ko waaw gis ngeen sëriñ buy faj dof mu ne waaw mu ne gis ngeen médecin wala wala sëriñ buy buy faj wayadi waaw mu e wayadi baaxul waa ji dafa wayadi ah kii bi jot nawet bi jot rek ñu ne ba xamutoon dara daanut ñaan dara kay kon lu ñu lay indilee dara demal fële képp koo xam ne nag sa baay dafa jàng am xam-xam nit ñi di ko ñëwal te amoon xam-xam noonu ngay mel bu nit ñi ñëwee lañ fay gis mooy tax mbooloo ma tas ñu dem seen yoon. Hmm. parce que yow mi amut xam-xam sax nit ñi mën nañ laa bàyyi fële bañ laa bañ laa topp waaye yow mi yow mi sa baay amoon xam-xam nit ñi dañ fay séentu xam-xam buñ ñëwee ba aksi gisuñ fa xam-xam ñu dem. dégg nga baay bi muy taalif téere boobu ne dafay yedd doomi sëriñ si. pour ñu déllu delluwaat ci xam-xam tudd doomi sëriñ si daf ne rek tafsiratul anami fi inna al ilma huwa al imam dama bëgg a démontrer indi ay preuve yu palpable ci ne xam-xam mooy njiit déggoo sax man li ma wax dama ne bàyyi mënoon na wax ne tafsiratul anami fi inna al alima huwa al imam dama bëgg dem wane ne borom xam-xam mooy njiit mu ne déedéet borom xam-xam du njiit xam-xam mooy njiit borom xam-xam du njiit xam-xam mooy njiit maanaam même borom xam-xam bi xam-xam a koy giide bu mu ci dugal bakkanam bi bu mu ci dugal boppam bu mu ci dégg bu mu ci dugal daraam na bàyyi xam-xam mu wax mais xam-xam nag buy wax am na làmmiñ ñu muy waxee xam nga ne bàyyi tënkuwut ci benn ngir maa la ko misaalal léegi nii euh, ngiram Malik dañuy wax ne booy julli farata doo wax bismillahi rahmaani rahim ci kaw dëgg la walu dëgg lima ma doon wax ñëw na léegi boo demee ci koo xam ne du wax bismillahi rahmaani rahim ci kaw nga foog ne li def du xam-xam yow ya jàngut parce que loolu mooy mazhab Malik waaye bàyyi lu tax moom mu indi bismillahi rahmaani rahim ci kaw mom daf ne man dama ma ci ci ci mazhab lima ma gis daal mooy bismillahi rahmaani rahim bi coow li bëri na waaye xam naa ne kaamil bi nga xamne mom lañ jot mu joge ci sahaba yi kamil yu Seydina usman bi bi nga xamne mom lañ jot nga xamne moy nim wacce won ci alquran sar bu ci nek dafa am bismillahir rahmanir rahim ci commencement kon man bu ma jàngee bismillahi rahmaani ci commencement yi saar bu mu rek même ci julli aw ma problème parce que teg naa ko foo xam ne ci xam-xam la parce que bu bokkutoon ci kaamil bi benn duñ ko bind ci kaamil bi wala buñ koy bind duñ ko bindee ci rasmu biñ bindee kaamil bi danañ ko bindee ci beneen beneen beneen beneen kii xam nga euh, danañ ko bindee lu xonq wala leneen luy wane na kii waaye bind ko niñ bindee rasmu kaamil bi mu nekk ci boppi soor yëpp kon man ku ko bàyyi am nga foo ko sukkandiku waaye ku ko def it kenn mënu laa yedd kon man damay préféré def ko baay dafa toog yéen a ngi koy dégg ci alxuraan mu ne Shaafi'u ak Maalik dañoo werante Shaafi'i mu ne hamdul muqayyad moo gën boo ne alhamdulilah teg ci ne teg ci xéewal yi nga xam ne moom la la yàlla xéewal Maalik mu ne hamdul mutlaq moo gën ne sant rek parce que yàlla jaru ngay tudd xéewal yi yàlla dafa méritoo sant rek bàyyi mu ne xaw ma ku ci ëpp xam-xam de waaye alhamdulilah moom wax na rabbil alamin léegi xam nga kon saafi la àndal ci foofu ak nag yeneen ak yeneen boo demee tey euh, amin mbii waruñ ko wax ci kaw ci ngiram Malik mais moom bi mu jàngee gis xadis yoo xam ne dañuy wax ne bu yunu bu imam bi waxaan wala daalin dañuy da ngay dégg amin ba jumaa ji di riir koy def yaa ngi dégg Abdou ñëw boo demee ci ngiram Malick li gën a bëri dañuy wax ne xat xaama salaatu benn yoon lañ ko war a wax jàkk yu bëri boo ko déggee xat xaama salaatu boobu boobu mooy ngiram Malick mais boo demee ci yeneen ngir yi ñoom dañuy wax ne xat xaama salaatu dañ ko wax ñaari yoon pour wan la ne bàyyi tënkuwut ci benn ngir mooy boo waxee xat xaabal salaatu benn yoon du la wax dara mais boo waxee ñaari yoon du la wax dara parce que yëpp am na sukkandikukaay ñii noddu noddu noddu arab yi di neexal dañuy wax xat xaabal salaatu ñaari yoon am na ñuy wax benn yoon mais loolu yëpp mooy lan la dafay gëstu di gëstu boo gisee loo xam ne xam nga ne lii moom wér na ne yonentu bee ko wax wala nangam comme parce que xam-xam dafa yaatu xam nga Ibnu Abbas Euh, Ibnu Abbas la nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko joxoñ ne borom xam-xam la moom daana def lenn tukki bii ngiram Malik ne sooy tukki ñetti fan nga war a nga nga am pour wàññi julli ak dog moom daana def bu xasee ba tukki feek xamut kañ lay njibbi rek mën dafay mën bu demee weer sax comme mi ngi nekk ci tukki boo xam ne xamut xamut kañ lay njibbi dafay continuer di wàññi di di di dog léegi nag ku la mën a wax ne Ibnu Abbas li muy wax tegul ko ci diine waaye ñiy organiser dañuy seet li gën a bëri gën a siiw xaj na ñu tënk ci ni ñi parce que li ma bëgg a wax rek mooy ku amul xam-xam ay raccourci yooni raccourci euh, ku ku am ku xam dëkk bi moo ko war a def waaye ku xamul dëkk bi da ngay jaar ci yoon wu tàllalu wi boo gisee loo xamul nga laajte mais nag gis waa ji di jaar ci raccourci rek nga jaar fa xam nga buur bi dafa ñëw euh, amoon ay waaye dafa nekk buur fekk xale yi nga xam ne ñoom la doon ànd bi muy xale du doon tàgg ñoom di foog ñoom di def ak ñoom lu nekk bi mu demee ba nekk buur ñuy def pexe pour gis ko mu tëx xam nga gis buur yomb ba benn bés nag ñu am sens gis ko buur bi ne leen xoolal nañ annulé audience am yëpp tey moom moom du wax ak kenn parce que xaritam yii mu gis nii daf leen a gëj a gis foog mu fàttaliku euh, ngoneem ak nangam nangam nangam kon bu ko kenn jege garde yi sax nañ sori ah ñuy toog di waxtaan. bam mu ñu jug di doxantu di doxantu ba tibis jot ñu ne xamatuñ fan lañ jëm buur bi ne leen eh problème amna de man garde yi nekkuñ fi gaay yi nangam nangam te man dam fi ne ni dañu reer gaay yi ne ko de wax seetaatal li ngay wax de ñu reeruñ de yow ya reer de yow ya reer ñun reeru ñun ci yow lañ jëm si won te yaangi ni yow ya wara a fo jëm ñun reeruñ de est ce que dégg wax bi ñoom réeruñ parce que ñoom bu ñu ngi ñu buur bi te loolu rek mooy seen bëgg bugg feek ñu ngi ñu ngi ci buur bi rek ñoom réeruñ buur bi nag moom mi war a ñibbi ca palais ba moom moo war a seet fu mu jëm xam nga loolu li muy tekki mooy ku amut ku nekk ku takkoo ku am xam-xam wala nga jaar ci yoon wu leer wi yow yaa ngi ci yoon wi rek waaw mais ki war a jàdd te xamut yoon wi kooku moo moo indi problème dégg damay wax ba tey ma ne alwasatiyatu man ni ma ko ni ma ko déggee ci beneen dégg-dégg bi ma ci bëgg a dégg-dégg mooy xabulul aaxar diggu doomu mooy koo xam ne dafay nangu ne dafay nangul dafay nangul ñëpp respecté ñëpp nangul ñëpp ma joxe ci benn misaal xam nga Sénégal gi diine ji ci wàllu tasawuf la fi jaaree wàllu tariqa amul werante dugg na fi ci wàllu tariqa la jaar sëriñ si ñoo ko yor ay ati ati ati ati at laata ouverture di am ba leneen di fi am biñ demee ba benn jëmmi jamono Sénégal am ouverture ñu bëri dem jàng ci réew arab yi biñ ñëwee gis ne stylu sëriñ si ak méthode bi ñuy def ñoom moom bëgguñ ko ñu indi seen méthode bopp mooy lan indi harakaati islamiye ay ay mbootaay lay doon yoo xam ne dañ koy def comme ni ñuy def mbootaay yi utal ko ay euh, ay këyit dégg nga di dox ni mbootaay di doxee ñuy réunion di def ñuy nangam ak nangam ak nangam système boobu. booba sëriñ su bëri dañoo ragaloon taalibe yu bëri dañoo ragaloon loolu ne lii contre sëriñ ko tax a jóg wala jéem a coup sëriñ si génnee leen ci diine ji yu jël seen place moo ko tax a jóg. sëriñ su bëri gëm loolu nanguwuñ loolu ñu ñëw ne bàyyi xarakaati islami yi wax ko bàyyi ne ko li ko tax a jóg mooy folli seriñ si mun ne ah man de bokkuma ci. waa ji ne ko ah yow bàyyi lu tax nga ne bokkoo ci te yow <laughs> yow ku la mën a génne ci sëriñ si bu ne ko waaw da may laaj lu tax ma la bokkuma ci ñoom lan lañ wax ñoom ñi xam dañoo bëgg a foole sëriñ si duñ wax mun dañoo wax ne sëriñ si jànguñ mu ne looloo tax bokkuma ci man duñ wax ne jànguma man maa taalif tam anam fi anna al-imam huwa imam beneen argument bu ñu wax mu ne ko dañoo wax ne sëriñ si dañoo tayal duñ liggéey mu ne ko man rek maa am ay tool man maay liggéey jël suma xaalis bay ba nawet bi wàcc ma jël li ma am yëpp joxaat ko miskin yi ngir gëm ne bay jaamu yàlla man duñu wax ne man liggéeyuma demal nga seeti beneen sëriñ bu ñu wax man du man xaaral sax ba wax la ni may def mooy invitéel ma leen ñu ñëw mu ne leen seen association yi man bàyyi maay njëkk a cotiser ci association mujj gi sax bi ko gars yi sonalee mu ne leen baax na man bàyyi nangu naa sama doom coup d'état toog sama place moo ma gënal doomi jàmbur coup d'état ma toog sama place ñi samay jarbaat ak samay doom rek lañ nañ ñu nañ coup d'état sëriñ si waaye buñ coup d'état sëriñ kon Baye mom dafa téla ñëmé euh xarakaat islami yi waaw daf leen di invité dañ koy invité muy dem ci seen mutamaré dafa leen di gis dafay jël xaalisam diko def ci ñom dafa dafay wax ak ñom motax tax sëriñ mi yi li dama lu graw mu ne dafa dem rabitatul alamin islami ne boobu mi ngi liggéey rabitatul islami nekk fa ak ay gaay yo xam dañuy contre sëriñ mais mom ak moom ak ñoom ñooy liggéey mu ne am mbotay guñ bëggoon a sos ci seen biir ñu ne ko président mu ne déedéet secrétaire général mu ne déedéet ñu ne ko jëlal luñ ne ko jëlal rek mu ne déedéet bàyyi leen ma rek ma nekk membre simple mu ne ñu toog bu julli jot ñu ne ko kaay jiite mu ne déedéet jiite leen ñu ne ko nag yow da ñuy fontoo yow mën ngaa nekk fii nekk borom xam-xam ba pare lu ñu wax nga ne déedéet mu ne déedéet man bu ma leen jiite te nangu naa ngeen jiite ma parce que man gëm naa ne nangu naa ne yéen ay jullit ngeen comme man nangu naa ne yéen ay jullit ngeen su ngeen ma jiitee su julli du yàqu waaye comme da ngeen jàpp ne sëriñ xéeféer la bu ma leen jiitee seen julli gi yàqu keroog lañ na ku kaay yow li ngay wax ñun sa bi dégg nañ ko yooyu ñuy wax noonu yëpp amul ñun contrôle sëriñ kaay ñu yow mu wax ak ñoom mais da ngay gis loolu mooy lool mooy loolu mooy mooy man nangul naa leen nangu naa julli ci seen gannaaw parce que su ma julli du yàqu ndax xam naa ne ay julli tamay jiite waaye comme da ngeen a jàpp ne sëriñ du julit man du man nangu jiite leen seen julli gi yàqu parce que ku duwul julli war jiite ñu doo jullit mais ñoom xam nañ li muy xam nañ li muy wax ak ñoom mais bàyyi noonu la def moo tax bàyyi moom amutoon problème ak gars yi nga xam ne ñooy oote yeneen munazamatul islam yi masta am ak ñoom problème parce que nag ma jox la lu gën na garaw loolu am na jamono boo xam ne Abdoul Aziz Ben Baz mooy ki nga xam ne moo moom mooy mufti bi gën a mag ci Arabie de dégg te dafa gëm ne tariqa baaxut loolu la gëm mais bàyyi bu wàccee Arabie Saoudite moom lañ jëkk a seeti dem nuyu ko wax ak moom su ko laaj su ko laajee ci xam-xam ne ko tarixa lii caaxaan la mu indil ko argument ne ko du caaxaan ñu toog li ci des xam-xam la ñu toog di wax ci xam-xam di bokku jotaay di bokk nangam mosu ñoo xuloo mosu ñoo def dara xam nga loolu nag euh, yow lu tax sa baay def nangam rek nga jël jaase loolu dafa fekk mënoo mënoo lay li sa baay di def rek waaye soo amee argument kay da nga naan ko kaay yow ya xamul suma baay li mu doon def léegi lii moo tax mu di ko def mu la ah mu jeex waaye sa bàyyi lu tax mu doon dem ca marché ba rek nga jël jaase mooy ne amoo argument loolu beneen bi mujj bi mooy al wasatiyatu saqafiya hmm? da ngay xool li ma la wax noonu demal bi mu demee Nigéria ñu bind ko lettre ne ko dafa am ñu wax ne jàng alquran ci rajo dafa xaraam parce que rajo dafay teg musique dafay nangam dafay nangam dafay nangam bàyyi bind leen lettre leen lettre ñu insister mu def ko téere téere ba mu ngi ko tujjee al xujjatul baaliga fi kawni izaatil quran saayira fekk ay boroom xam-xam ci Nigéria ñoo attaqué taalibe bàyyi ne leen yéen bàyyi mii wax leen ne dañoo war a jàng al kii alquran li muy wax du xam-xam indiwu ci argiment bu leer xam nga kon ba léegi dañ ko tuumaal muy tontu waaye bi muy tontu alxujjatul baaliga fi kawni izaatil quran saay xalawa waxut ci téere bi luy wane ne dafay xuloo wala dafay delloo xuloo daf ne man maay indi lii mooy lay yu leer yi nga xam ne kuy teg alquran ci rajo lii ci ngay sukkandiku pour wane ne sa lay yi am na fu mu sukkandiku ba léegi du xuloo moom dafay dafa am argument am rek indi ko weddi nga ko moom moom it mu mu mu daj li nga wax indi argument mais ci kaw xam-xam mais du xuloo ci la leen waxee ne leen yéen bàyyi leen li ngeen di def yéen tamit rajo waxut rajo musique gut jàngut alquran yow yaay jàng alquran mu jottali ko nga musique mu jottali ko mais rajo waxut rajo jàngut alquran feccut donc mu munu nuñ cee wax ne nuñ kenn mënta wax ne dafa xaraam dégg de même faydatu tijaan bi mu ko indee ñu koy weddi di ko weddi di ko weddi di ko weddi di wax wax wax lii lii nangam nangam nangam bi mu ciy taalif téere di tontu ne bokkul ci tariqa bi dañ koo sos dañ koo nangam lu mu wax kaasiful albas an faydatil xatmi abil abbas xuloowuma waaye nag danaa leen indil argument yoo xam ne ci li ngay yow mi gëm ne faydatu tijaan ci ci tijaaniyeetu la bokk danaa la indil argument yu dëggal sa gëm-gëm boobu dégg de kon ngeen déggee ci ne maa ngi bugg a wàgg àgg ca fin waaye léegi nag ma dëppaat nag dellu si ci li taxoon ñuy wax wasatiya bu fekkee dañoo dellu siwaat ci jaamu yàlla parce que wasatiya dafa am ci diggu doomu dafa am ci jaamu yàlla am ci culture am ci jëflante am ci euh, ak gis-gis parce que Baye am na benn waay boo xam ne dañ ko dañoo ñëw ne ko waa ji euh, jullit la gars yi juum dem yóbbu ko ci armée li yi suul ko fa léegi am na ay fan bugg nañ ko sulli gars yi nee nañ arme gars yi taxaw nañ jël yet ne ñoom itamit kenn du ko fi sulli parce que bu ñu fi commencé ay sulli léegi tey ñu indi fi problème am ñu daw ñëw ci bàyyi ne ko xeex a ngay bugg am ci dëkk ba mu ne lu ko waral ñu ne ko dañoo suul kii bi nañ ko suulee nangam nangam mu ne leen déedéet xam nga jullit niñ koy suulee noonu jubluwuñ ci lu may suulin boo xam dañ ci xamee ne jullit dana ci xamee ne kii jullit mu ñaanal ko waaw mu ne ko léegi da ngeen di dem lii yëkkatiku noonu ci xabru bi moom ngeen di def def taxawaayu jullit rek ku fa xam ne jullit la waaw ngeen bàyyi ko noonu waaw jaru jaru sulli parce que jul sulli óorul ku sul ay fan kenn xamul lu muy lu muy def baaxul waaw te comme ñee ngi jël jaase ne bu leen ko sulli problème ñëw na bàyyi am na benn waaye boo xam ne daf ko yebal ci sëriñ yebal ko ci nekk fu nekk mu dem jigéen la pour jàngal ko sangu farata mu të parce que xel mi dafa nëx ñu wax wax wax lu ñu wax xamu ko bayina na ko yow comme fofu nga tollu demal ci douche bi nga nga yek nga ubbi sas bi muy sotteeku ci sa kaw nga yéene sangu rek après bo paré rek sangu nga voilà ah, loolu mooy xam-xam dafa wara dafa wara dafa da nga da nga wara a mën eh, ñep xam nga baram gaay yi ne ku la nangam nangam kara baaji bu kërëm kërëm ba mais dafa am muruna ci yenn yi pour wan la ne baye ko yar parce que ni mu amee tësadud noonu ak ni mu bañee euh, ku kii ni mu bugg gaawee wax kii dafa dafa ñàkk fayda dafa waye di boo ko déggee muy wax ne moom buggut a gis xale boo xam ne heure bu nekk mu ngi ca mu ne moom buggut a gis xale boo xam ne mu ne xale bu gis xale bu ndaw toll ci jàng wala nga toll ci tabax réew mi wala nga nangam heure bu nekk nga nekk ci jumaa ja mu ne façon bon rek loolu dafa garaw de waa ji ñëw nag ne ko man daal damaa gagné xaw ma PMI la xaw ma daal en tout cas loterie la te xaalis bi dafa bëri. léegi nag nee nañ ma affaire bi dafa xaraam dafa lii man xaw ma nu may def léegi damaa ñëw ci yow pour nga wax ma nu may def mu ne ko da nga maa bëgg a indil problème rek yow su ma la waxee ne xaalis bi boo ko lekk tamit a nga ko lekk léegi sa laaj bi lu muy jëriñ man bu ma ne doo ko lekk tamit dang ko lekk legui bugguma indi problème moo nga ñew ci man waye legui li lay wax moy comme xaalis bi mëno ko ñàkk lekk te yermane yalla bari na fexel ba li mom nga doylo ko bul duggati ci pay bul duggati bul bul bul jouer ci benen yoon mom lolu mom ma ma ma ma ma limité lakk gi bok mais xam nga lolu deg deg la ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ñewé ci jaamu yalla musuñ ko tan lo ñaari mbir ne ko ñaari mbir a ngi nii tànn ci benn lu may dafay tànn ba gën a yomb lu may nag mu dem ba génn diine mu dem ba yàq diine waaye bu dul loolu rek heure buñ ko tëralee ñaari mbir rek ba gën a yomb lay jëm loolu mooy mooy mooy wasati ñu ne dafa am gaa yoo xam ne dañoo ñëw ci dañoo def mbooloo moo xam dañoo ñëw ci kër soxna yonent bi di leen laaj yonent bi jaamu yàllaam biñ leen waxee ne dafay fanaanee naafi la wax leen li muy li muy li muy def yëpp ci jaamu yàlla ah ñu ne ñun dañuy fontu di ñu ne bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy moom moom moom mooy lépp yàlla yàlla léppam muy jaamu yàlla yàlla gu rëy gii ñun buñ ko xiyaasee ci suñ jaamu yàlla dafa mel ni du dara maanaam ñoom dañoo foog ne ñoo war a gën a jaamu yàlla yonent bi ñu ne ñun daal kon ñun dañoo ñàkk fayda li ñuy jaamu yàlla yonent bi ne leen lu ngeen lu ngeen wax ñu ne déedéet ñun kii ñenn ñi ne ñun dañuy oor rek dootuñ dog suñ dund bi dañ koy or ñenn ñi ne ñun dootuñ takk jabar ñenn ñi ne ñun xaw ma nangam dañuy naafile rek guddi yëpp dañ koy naafile yonent bi sallam génn na leen dégg naa ngeen wax waaye nag na ngeen xam ne maa leen gën a ragal yàlla maa leen gën a xam yàlla te damay or di dog damay nelaw di yeewu damay takki soxna képp koo xam ne nag da ngaa da sama sunna bokkoo ci man yonent bi sallam dem na ci weeru koor mu or naaj bi tàng mu ne indi leen ma ndox ñu naan mu naan ba pare ñu continuer ci mission lañ nekkoon ñu ne ko diw ak diw diw naanuñ mu ne bii sama faalu bi bii sama sanaaw diw ak diw diw dagg nañ da oruñ dañoo continuer or mu ne ñu ne mu ne mu ne def nañ lu bon def nañ lu bon mooy lan mooy or parce que man am naa kàttan pour or mu ne déedéet am moo tax am na ci saxaaba yi koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi def ne ko tee ngaa bañ a dappate or mu ne mën naa ko man am naa kàttan mu ne ko tee ngay or altine alxames mu ne mën naa lu ëpp loolu tee ngaa or or yi eh, or benn fan mu ne mën naa ëpp loolu yonent bi génn na àddina mu ne mag dikk na feebar dikk na mënatu ko te mënatu ta bàyyi mu ne man dama demoon doye waaye bu ma yeboon nangu li ma yonent bi waxoon léegi nag feebar ñëw na mag ñëw na te waxoon naa yonent bi ne ko mën naa ko léegi mënatuma ko bàyyi problème ñëw na dégg de xadis bu mujj bi mooy euh, ku ñuy wax Abu Darda yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo mbokkaleeg benn saxaaba jógee Makka ñëw Madinatu Munawwara gàddaay indiwaale wut dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël leen muy lesson boo xam ne bu jar a bàyyi xel la parce que maa ngi waaj a tëj mais lesson yu am solo la ci côté social mu ne gars yi dañoo jógee Madina. ñi bàyyi fa seen jabar yi ñi bàyyi fa seen doom yi ñi fa seen alal bàyyi fa seen kër yi ñëw ngir diine maanaam ki nga xam ne yaag moom yéen a bokk benn cause bu ngeen di défendre mu yow nga am kër moom amul kër kii mu xaddam la yow mu xaddam la mu xaddam nga mu am mbooloo mu ndaw yow nga am mbooloo mu mag am loo ko tanee wala kii conférencier la wala liggéeykati diine la nga am loo ko tanee au lieu que nga dikk ko tiitaroo déedéet da nga ko war a jàppale mu kim ko bokkaleel ñu ñëw ci kër gi mu ne lim njëkk a seetlu moom mooy jabari abu darda la gis mu sol yére yu rap ñu ñëw ne ko lii lan la mbaa jàmm la yow sa yére yi nga sol lan la mu ne ko déedéet man suma jëkkër dafa dëddu àddina bëggul dara ci àddina boo ko solee mbubb yu rafet tamit du ko xool moom dëddu àddina man man tamit comme suma jëkkër la ma nekk ci lim nekk mu ne loolu la njëkk a seetlu mu ne bi guddi jot bi bi heure yi añ jotee ñu tegal ko añ mu ne abu darda ñëwal añ abu darda ne ko man dama or mu ne ko déedéet la nga dog de da ngay dag sa koor gi ñëw ñu bokku añ wala nga añ bi man duma añ man kenn abu darda dag kooram gi dégg lu baax ñëw añ ak mom parce que koor gi koori la mu toog ba guddi ñu julli fajar mu tëdd rek abu darda commencé kabar mu ne ko lii lan la mu ne ko damay mu ne ko ñëwal tëdd mu tëdd ñu tëdd tëdd ba ci ba ci ba ci kanam mu jugaat mu ne ko lan la mu ne ko damay naafale mu ne ko tëddal ñetti yoon ba des waxtu pour ñu noddu fajar mu ne ko jugal mu jóg ñoom ñaar ñu continuer di di naafile bañ noddu fajar ñu julli bi bët setee rek Abu Darda ne ko def loo nga ma loo xam ne nangu naa ko ngir ne gan nga waaye nag xaw ma ndax tegu na ci xam-xamam déet te comme yonent bi fi dem laaj ko bi ñëwee ci moom sallallahu alayhi wasallam ne ko lii la ma la sama mbokk mi def loo mu ne ko sadaqa ka ah waaw waaw fa inna li jasadika alayka xaqan wa inna li rabbika alayka xaqan wa inna li ahlika alayka xaqan sa soxna am na ci yow àq dang nga ko ko war a jox sa yaram bi am na ci yow àq nga noppal ko su sonnee waaye say borom am na ci yow àq moo tax sufiyanke yi ñu ne nit dafa war a xaaj waxtoom yi ñeenti waxtu benn bi muy wax ak boromam lijjanti li dox digganteem ak boromam benn bi mu lijjanti yëfi njabootam beneen bi ci des mu lijjanti ci li nga xam ne mooy maslaa yi nit ñi xaw beneen bi waaye noonu lañ ko séddalee maanaam noonu la war a demee boo ñëwee nag ci fin bi mooy may tëj dama lay wax ne la bàyyi ba léegi dafa wane ne wasatiya diggu doomu mooy etaawu kulli zi xaqin xaqahu wax naa ko sànq ci wàllu xam-xam ak boroom xam-xam yi waaye bii li ma ci jublu mooy maanaam njaboot gi njaboot gi sa njaboot ci bopp gi li la war sa digganteeg ñoom balaa nga koy xam léegi rek léegi sax demal koo xam ne soxna baay la nga dem tàllal ko bikoro ne ko waxal waxal ñu ci baay li ngay njëkk a sentir ci moom mooy da nga yëg ne moom nangu ne ne nit ku baaxee noonu amatul am amut ci kaw suuf dana la wan ne la wéetaay gi mu wéet amatul ci kaw suuf parce que loolu li koy waral mooy kenn ku nekk jox na la àq bi nga war a bi nga war a am ba ci kaf ak yow sax ak nangam ak waxuma teraanga moom kenn mësu koo gis ndax man sama yaay ci boppam nettali na ma ne ma dafa am benn jëmi jamono bàyyi ne ko jàpp ko ci loxo yóbbu ko ci bàyyi xalifa magam ne ko kii mooy sa mooy sa mooy sa njaatige mooy sa jëkkër mooy sa lépp su gërëmee gërëm naa su gërëmut gërëmu ma lépp loo war loo xam ne xewle nga ko boo bul ma romb boo ko rombee boo ma boo ko rombee waxoo ko ko ñëw wax ma ko amul njëriñ booba boyati or moo xew boobu borom kilifa yi suñ demee Makka su ñuy ñëw di indi eh, seen seen soxna yi kii dañuy indi boyati or xale yi xamuñ kii maanaam benn kii la bu mag nii boo xam ne dafay def chaîne bu gudd boo xam ne daanaka duut pour tak chaîne boobu kenn mënu ko takk chaîne bi daanaka da ngay gis ne denc xaalis la compte banque la parce que chaîne boobu da gis ne soxna si dana ko yore bu amoon fukki doom yu jigéen yu sëyi kenn ku nekk dana la ci daggal ab seen nga takk ba pare bés bu jaaxlee am lu urgent mën na cee jaay loo xam ne mën na koo génneel xaalis kon loolu compte banque la ñoom noonu lañ daan dimbalee seen jabar ma ubbi ci sax benn parenthèse est-ce que xam nga ne am na loo xam ne ñun war war nañ ko corriger oustaz mooy ñun ñi am barke dañuy dimbale seen doom yu góor yi dimbale sa doom bu jóor mu takk jabar dimbale ko mu tabax kër dimbale ko léeg-léeg dépasse bi manqué nga dimbale ko léeg-léeg koddaay li njabootam manqué nga dimbale ko mais sa doom bu jigéen su amee jëkkër lu wax ñu ne na dem ci jëkkër ji néew na nga gis kuy kuy tabaxal doom bu jigéenam euh, kër rawatina boo amee jëkkër bëriwul lu muy am de amu fi de bëriwul de mais man tel mi di waxoon na ma ko rahmatullahi alayhi Cheikh Tidiane Wulu Seyid kiyal na ma ko

baay ku gaañu ci dëkk bi nga gis mu taxaw ñun biñ nekkee xale oustaz dañ daan ñaan yàlla ne ñaan yàlla nañ dee bàyyi ñun dañoo foog ne bàyyi moom ñëpp moo leen di jullee ñun dañ daan ñaan yàlla dee bàyyi jiiti bàyyi jullee ñu ndax lan bu nit deeyee ba bàyyi taxaw ba waare ba delloo nit ñi ci yàlla ba pare yow da ngay bëgg a dee léegi ñu ñu yóbbu ñu bàyyi taxaw la ñun dañ doon ñaan yàlla dee balaa bàyyi balaa bàyyi dem ndax ndax mu jiite ñu billaahi wallaahi taala bu nit taree alquran su waadee ba pare rek ñëpp bugg am doom yu tare alquran ñi amoon doom yu tare alquran bugg a bugg a am doom yu yeneen bàyyi moo doon wax ne mu ne jigéen bugg na takkaay te takkaay baax na waaye maa ngi leen di wax ne takkaay bi gën foor ci takkaayu jigéen yi mooy doom ju tare alquran nit ñi di boobu tare alquran ni mel ba léegi ni mel ci Medina loolu moo ko waral noonu lay def oustaz Mbaye Yacine mu ne bi mu njëkkee def discours ci kanam Baye ci jumaa ci tribune bi Baye euh, akolaat ko dafa ñëw ci kër gi baayam ne ko dëgg dëgg doom man ñeenaa la bu démb doon tey ma delluwaat uti xam-xam mu ne ko loolu lu muy tekki mu ne ko man taalibe Baye laa te Baye xam na ma lu nekk defal naa ko Baye Baye bu suma akolaat yow nga def benn discours mu akolaat mm-hmm. te man akolaat bi jaral na ma lu ne kon su ma doonoon gole ma dem jàngeer kon Baye fexe na ba ñëpp xemem xam-xam fexe na ba ñëpp xemem mbokk fexe na ba ñëpp euh, ragal yàlla fexe na ba ñëpp euh, kii waaye terewut fexe na ba ñëpp bugg jaamu yàlla mu tëjee ko rek nag lam daan wax buy firi alquran ne bi yàlla waxee ne fa isa faraxta fan sab maanaam daal daanaka wasatiye mën nga ko tënk aaya boobu noonu waaye firi bi mën naa nekk fa isa faraxta fan sab mooy lan mu ne demal ci mbiri jaamu yàlla soo paree ci mbiri jaamu yàlla ñëwal ci mbiri doomi aadama yi waaye commencé ci sa bopp boo commencé boo paree ci sa mbiri bopp demal ci mbiri mboolooy soo paree rek dafa loo pare rek demal ci leneen toog taxaw amul ci addina bi wër rek lu jeex rek nga nga nga nga jël leneen. loolu mooy mooy mooy mooy mooy bàyyi donc li ma bëgg a wax mooy pour pour tënk li ma waxoon. da ngeen ne digg doomu mais li ma la a wax ci te ba pare école Baye ngeen junj bu fekkoon ne rek lañ wax mën naa wax du ma tudd Baye waaye comme Baye lañ wax ci euh, digg doomu ci école Baye lañ wax li wax ne digg doomu démontré il faut ñu jàng ba àgg ci xóotu xóotu xam-xam d'abord loolu mooy premier élément parce que misaal mi mooy lan mooy man bu ma buggee dem kawlax yoon wu ma neex ma jaar dafay fekk nga xam yoon yi dem Kaolack yëpp mais soo xamul lu muy benn yoon benn yoon bu ci gay jaar loolu mooy xam-xam boo xasee ba am xam-xam xam mu lëf lay tinki fu la neex nga dem soo xasee ba am xam-xam boobu di la tinki nag dootoo xeeb kenn dootoo yab kenn ci xam-xam ku nekk da ko nangul dégg-déggam waaye nag am maamalaaji la bàyyi gën a naw ci doomi aadama yi maamalaaji dafa yoor loxoom moom muy aj loxoom loolu wane ne loolu affaire wu beneen affaire la ça n'a ak affaire u respect ak ñàkk respect loolu mas naa ko wax ci benn gàmm ne loolu mooy li gën a wane ne fi bàyyi gën a wane ne nit ñi mën nañoo ute ci ay gis-gis uute ci ay pratique waaye lépp diine la lépp wér na waaye uute ci diine uute ci pratique wala uute ci waxin wala nangam wala man damaa amee sëriñ yow danga ngaa amee xaraka islamiya da ngaa amee président loolu warta indi problème ku nekk jàpp ne sa noonu moroom nga ay méthode la rek lépp diine la ñuy wax rek ñëpp laa ilaaha illallaah la ñuy wax suñ ko gisee noonu nit ñëpp dañuy nekk ci jàmm ma ne la nag waaye wasatiya boobu noonu xam-xam boobu nit mën naa dem ba géeju ci xam-xam waaye nag dañ ko jox benn programme bu déséquilibré mooy dañ koo tànnal rek ñi nga xam ne ñoo am rigueur ñu jox ko ñooñu rek dafay dem ba foog ne sax maanaam buñ ne bu buñ ne kii sax boo boo yéexee euh, buñ noddee tamit sax boo ci tegee cinq minutes julli woo sax dañ la war a càtt jaas xam nga loolu tamit dafa dafa dafa métti da ngay dem ba nit ñi euh, la waa ji daloon li daloon waa ji moo lay dal ba sëriñ bi ba waa ji ñëwee ne ko man nag dama bëgg a tuub yow laa bëgg nga wax ma ndax mën naa tuubam déet comme yaay sëriñ bi mu ne ko loo def mu ne ko damaa rey juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent mu ne ko ah yow yàlla du la baal rek mu rendi ko ñu ne ko lii lan la mu ne ah comme man yàlla du ma baal du ma continuer ci sama caay-caay rek ba ba yàlla di ma baale mu ci keneen keneen kooku moo ko wax ne ko mën ngaa jaarale ko ci yoon bi mu dem tuub te bi muy déyaat am na mandarga yi wane ne yàlla nangu na tuuba waaw doone nit ñi lu leen neex def leen yàlla dana leen baal waaye doone leen dootu leen dootu yàlla dootu leen baal parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam mos naa dégg benn waay mu gis ku def caay-caay caay gi naqadi ko bugg lu bañ lu bon rek de mu ne billaahi ki yàlla du ko baal billaahi ki yàlla du ko baal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ool leen ma waaji mu ñëw mu ne ko yow yàlla nee na ma wax la na yow kañ nga ko folli ba toog palaasam mu ne ko loolu lan la mu ne ko lool doon wax léegi mu ne ko damaa wax nangam ak nangam mu ne ko loolu la yàlla wax léegi yow yaa toog place yàlla yaa xam ki yàlla euh, man baal ak kum dut baal ba pare yaay limité yërmande yàlla wane ne am na fu mu yem yàlla dee na kooku nga wax ne yàlla du ko baal ba gëñ ko yàlla baal na ko mboolee bi bakkaaram yow mii li xam li ngay sa jaamu yàlla gi nga yéem ba tax nga ne yàlla du baal kii lépp loo mas a def yàlla yàq na ko commencé à zéro te na nga gaaw nag parce que boo fi dee safara nga jëm mooy lan la bàyyi ni ñi ñu jaamu yàlla dégg nga euh, ak ku nekk ak nan ko kiyee am foo xam ne ñun ñëpp ñoo fay dajee mooy juli lañ ñun ñëpp ñu dajee fa joxante loxo jàng an mais nag loolu xam-xam moo koy waral xam-xam moo koy waral parce que léeg-léeg nga gis ku xeeb am mag wala mu di ko jam wala mu di ko ree man li ma wax xam naa ko gis naa ko fekk moom moo jàngul parce que mag mi li muy def mu ngi ko teg ci diine wala mu jëlee ko ci borom xam-xam waaye yow li ngay ree kooku jëlee woo ko ci diine jëlee woo ko ci borom xa kon diggu doomu daal ci gàttal mooy nangu ne yàlla mooy yàlla nangu ne xam-xamu sharia dafa yaatu comme géej gi kenn mënu koo jeexal dégg nga bu ko defee yow la nga gis ci géej gi bu mu tax nga foog ne loolu rek moo nekk ci géej gi comme mënoo mënoo dajal géej yëpp kon li ma bëgg a wax daal mooy doomi sëriñ si doomi taalibe yi doomi muqaddam yi sëriñ si laay waxat nag maanaam bu may wax sëriñ si pour défendre sëriñ si pour wane ne sëriñ si ci dëgg lañ nekk ni nga ko war a wanee du mooy ku saaga nga saaga dégg nga nangam nangam xuloo da ngay kii rek xam nga ñaaw làmmiñ moom jarut a essayer parce que dafay dafay dafay law rek. ne suñ benn waay boo benn mag boo xam dégg naa ko def benn waay sonal ko rek di ko tooñ di ko tooñ di ko tooñ di ko tooñ ba benn bés rek mu xëy rek daal di ne xaaral daal ma ma kii mu rek ñëw ne ko yow yow yow daal yow yow da ngaa xamut sa bopp yow di xooloon ni nga mel yow sa melokaan bi melut ak kenn ci suñ doomi baay yow suñ baay juru la de te nag ay magama ko wax yaa ngi doon wax rek ma noppi waaye fi mu ne nii nag moom na nga kii léegi nag mu ne ko da ngay waxoo dëgg nag nag waaye xelam yàqu na mu di ko xalaat di ko xalaat di ko ba dof bëgg ko indil dof mu dem ci mag ñi ku nekk di la laaj waaw kii ndax li mu wax dëgg la ñu ne ko ñun xamuñ ci dara muy wër bay waaj a dof ba mag ñi dajale waa ji ne ko yow yi li ngay wax ni foko ko yow tamit yaa ngi waaj a dofloo kii mu ne teguma ko fet dara du ci deug dama koy wan ne ko wax ju ñaaw mako ko dak rek comme daf ma sonal duma bay bàyyi dana ma baax comme mi ngi waji dof dana ma baax mais wax ju ñaaw tamit non la ko do doon tuddati lu lu arab yi wax iza chita an taxya saliman min al aza lisaanaka la taskur bi awrata mir in fa kulluka awratun ñu ne soo nekkee ci communauté bugg a nekk ci jàmm buggoo ku la xas buggoo ku xas sa baay bul xas bàyyi kenn parce que yow benn làmmiñ nga am te làmmiñ boobu bu déclenché lu mu néew néew juróomi téeméeri làmmiñ koy tontu parce que bàyyi sa mbokkam yëpp danañ tontu yow yaa xasul sa bopp te loolu yëpp ñàkk jàng ko ku jàng ma tëj foofu li may tëjee daal mooy jàng dafa indi maandu jàng dafa indi maandu parce que bàyyi dafa mosoon a am benn gan gani serigne la keur serigne la jugge gan gi nak dafa nopi du wax du wax du wax du wax du wax ah ba gan gi ñew bàyyi defal ko teranga ba ñibbi rek am ku nek ci weti bàyyi baye ngi jang kamil bi mu bugg jëw gan gi waaw yeen suñu gan gi fi jugge eh, dembu wala tay ah gan gogu dañu ne doomi serigne la mom doomi serigne bo xamne ne bu ñuy wax du wax mom dal tuddu ben baat du wax ci xam-xam du nangam ñu ne bàyyi dafa tëj kaamil bi ne ko ne ko ne ko ne ko maandu euh, euh, noppi bu bu yàgg ñaari affaire koy waral noppi ñaari affaire a koy waral bari xam-xam lool wala maandu lool wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu liggéey Faydu baay bi Sidi Barhama OCTV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey Faydu baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa OCTV yàlla yàlla